yi ñu tëree nii ak changement yi ak difficulté yi am nan la ci islam bi taxawee loolu la thème bi di jur dañ koy jox incha allah mu waxtaan suñu paree si loolu su amee dina am ay intervention après ak ñu def questionnaire mais loolu ci kanam lay ñëw
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهوى الظلمة وكشف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziyaara ci weer wu màgg wi nu nekk ñu ngi leen di baalu àq di leen bal àq di ñaan buur yàlla tabaraka wa taala yal nañ yàlla boole jéggal ñu ngi ziyaare waa quartier bi di ci jiital sunu papa sunu imam di ci teg kilifa gi jiite quartier bi di ci teg mboolem mbokk jullit yi ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala yal nañ yàlla nangul sunu julli ak sunu koor ci weer wi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ci mbaaxam lañu ko indilee pour mu mun a far suñuy bakkaar as-sawmu junna koor pakk la benn barrière la boo xam ne day baare nit pour mu dem safara loolu moo tax ñu tudde ko ramadan ramadan mooy lan mooy doomu taal bu tàng doomu taal bu tàng ku ci dugal sa tànk wala nga dugal ci sa loxo nan la lay def dafay ñori der bi ci kaw soo moytul sax bu fekkee ne doom bi tàng na torop day ñori waale yàpp bi noonu la weeru koor di def day ñori bàkkaaru jullit ba mu set wicc bu koor gi di jeex jullit bi du am benn bakkaar moo tax yàlla mu ne la allakum tattaqun pour ngeen am ragal yàlla bu koor gi di jeex danañ ko yàlla defal tomb bi nga xam ne moom la mbokk yi jullit yi sàkk woon ci ñun ñu fàttalante ko ak yéen mooy al islam fi muwajahati al mutatallibat wa tahdiyat al alam al muasir mooy islam ak jàkkaarloo càkkutéef ji nga xam ne wala jafe-jafe bi nga xam ne wala ay mbir yi nga xam ne dafa taxaw tey ci àdduna bi ci àdduna bi nga xam ne àdduna bu bees la loolu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ bëgg a def fàttali bi waaye mbokk yi tomb bi pour ñu waxtaane ko il faut ñu bàyyiloo nit ñi xel lenn pour ñu mun a ànd waxtaane ko ci gox yu mel nii lu jaadu la mais léeg-léeg mu indi problème parce que nit ñi amuñu yenn niveau yi pour mën a dégg nit ñi amuñu yenn niveau yi ci l'islam xamuñu diine bu baax pour ñu mun a am yenn compréhension yoo xam ne dinañ ko xam yenn yenn tolluwaay yi wala yenn déggin yi mbokk yi tey lu kenn mun tawet bi mooy anna watanana al islami al kabir yuaani mashakil mutaaddida tey sunu àdduna monde bi nga xam ne moom la jullit ñi nekk di ko dund muy aalamul islami wala ci déggin bu gën a gàtt kër gi nga xam ne moom la jullit yi di dund tey muy kërug l'islam tey dafa am problème bu rëy rëy rëy rëy dafa am problème mbokk yi ma ni lu mel ni bu ngeen ko gisee du ngeen ree mais den da ngeen di wax ne alhamdulillahi alladi afaani mimma btalaahu yéen di defe ne boo gisee ku wàññeeku na nga ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma féexal moo ma may jàmm ci lii mu nattuwaa ji islam doo gis nit ku wàññeeku ngay rey parce que li ko yàlla natt mun na la koo natt suba wala fi dañuy wax ne ku yeggagul tefes warul reeku la ku wàccagul ci garab gi waroo ree ñi daan ñu delloo suñu xel islam bàyyiwul dara xoola yonent bi ne la boo gisee ku wàññeeku waxal alhamdulillahi alladi afaani min mabtalaahu maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma may jàmm féexal ma ci li mu natt sama mbokk mi liñ doon wax léegi nii rek mu ngi nii gis nga dama guñ fenn mu commencé feeñ parce que nit ñi amuñu yenn compréhension islamique yi parce que niveau yi ñoo yeggul foofu dañu am niveau bu faible ci diine maanaam ñun lu ñu wax dañoo am niveau mais dañ naan amuñu diine moo tax monde l'islamique am problème bu rëy mooy li ñuy wax nii problème yooyu soo koy tënk di nga ko tënk ci ñaari wàll problème yooyu bu ñu koy tënk dañ koy tënk ci ñaari wàll yenn yi ci biir la yenn yi ci biti yenn yi ci biir aalamul islaam yi la nekk yeneen yi ci biti maanaam ñu ne kon yenn yi ci biir kër gi la nekk yii xeex yii xeex diine ji yenn yi dafa nekk ci biir kër gi yeneen yi nekk ci biti kër gi dafa am attahadiyaat ad daaxiliya yoo xam ne ñu ngi ci biir am yeneen yoo xam ne alxaarijiya la ñu ngi ci biti su fekkee yi nekk ci biir yooyu yi ci njëkk bi ci njëkk gën cee graaw mooy ataxalluf ataxalluf mooy ñàkk conscience mooy càggan càggante mooy retard mooy yambare mooy yàccaaral bi dal jullit yi nga xam ne tey moo tax ñu daal deltu ginnaaw mbokk yi ma ni problème bi gën a rëy tomb bi bu fekkee dañ koy dañ koy leeral ñaari mbir lañ koy leerale mooy problème yi xeex l'islam ñaar la dafa am yu nekk ci biir am yu nekk ci biti mooy dafa am défi yoo xam ne ci biir la nekk am défi yoo xam ne ci biti la nekk yooyu bi ci njëkk mooy ataxalluf mooy ñàkk conscience bi nga xam ne jullit ñi am nañ ko ñaareel bi mooy al irhab mooy terroriste ñetteel mooy almafahim alxati lil islam mooy compréhension bi nga xam ne jullit ñi comprendre nañ ko l'islam te compréhension bu bon la compréhension njuumte la yi ñett ñoom ñoo nekk ci biir kër gi ci biir këru l'islam di xeex l'islam te ci biir kër gi lañ nekk suñ ñëwee yi nekk ci biti yi nga xam ne moom tugal la nekk ak ci àll bi yooyu soo ciy wax da nga naan alxawfu min al islam gars yi dañoo ragal islam nit yu weex yi nga xam ne duñu ay julit dañoo ragal l'islam ñaareel mooy mbëkkante bi nga xam ne civilisation yi ñu ngi koy mbëkkante ñi dul julit seen civilisation mbëkkante bi muy mbëkkante civilisation islam boobu tamit problème la ñetteel mooy mondialisation muy al awlama mbokk yi bu ñu delloo seewaat ci tomb bu njëkk bi nga xam ne moom mooy ataxalluf wala yii ñu wax ni yëpp nga xam ne muy ay problème muy ay défi yu lancé wu taxaw ci kanamu l'islam dafa laaj ñu am solution bu palpable bu ñuy laal nii ak sunu loxo téye ko muy garab saafara boo xam ne moom mooy saafara jàngoro yi nekk sunu kanam sinon dañuy dund ba dee rek dara ne duñ dund diine problème yi ñu wax jàngoro yi ñu wax feebar yi ñu lim il faut ñu utal ko garab te garab googu garab gu ñuy laal nii la di ko jëfandikoo nekkul lu ñuy wax rek di dem nee na tey sunu peuple yi dañoo am retard bu rëy a rëy rëy rëy ci xam-xam boo mooy bu musiba bu gën a rëy bu ñu dal mooy ñàkk xam-xam ñàkk xam-xam boobu tamit soo koy firi ñaari tomb la ñàkk xam-xamu islam ñàkk xam-xamu adduna loolu la julli di boole suñ ne ñàkk xam-xamu l'islam mooy lan mooy jullit ñi xamuñu l'islam ndeysaan réer gi ñu réer réer bi ci gën a rëy mooy ñàkk l'islam réere l'islam xamuñu ko nga gis koo xam ne ci islam la juddu juróom-ñaari maamam ci islam la nekk te islam bi xamu ci dara lu dul lan sama papa ak sama yaay jullit lañ man Abdallah laa tudd wala man Fatima laa tudd jeex na loolu rek la xam ci l'islam bi ma nekkee xale jàngoon naa ba egg qul wa allahu ahad après ñu daal di may jël yóbbu ma jardin d'enfants ci laa jaar noonu rek ba ma jeexal sama jàng ba ma def sama doctorat looloo tax ma tardé jànguma l'islam loolu la gaa yi di wax tey mbokk yi mani feebar bi gën a rëy bi nu dal mooy ñàkk am xam-xam ñàkk am xam-xam boobu nag ñaar yëpp lañu boole mooy lan ñàkk am xam-xamu lislaam ñàkk am xam-xamu adduna fal jahl huwa sabab a taxalluf wa taaxur wa tadauf wa tabaatu lil gayr ñàkk xam-xam mooy sabab bi tax jullit ñi tardé kenn du wax l'islam dafa tardé l'islam musul tardé waaye ñi gëm l'islam ñoom ñoo tardé ñi gëm l'islam ñoom ñoo tardé waaye du l'islam bi moo tardé ñi gëm l'islam bi ñoom ñoo yambare mais du l'islam bi lu lay won loolu mooy xoolal am na pays yoo xam ne jullit ñi fa nekk mais dañoo am doole parce que nangu nañu dund réalité yi tooguñu di seetaan ci wàllu adduna dañoo jàng am xam-xamu adduna ci wàllu diine dañoo jàng am xam-xamu adduna moo tax ñu daal di avancé mais ñun ci wàllu adduna xamuñ ci dara pays baa ngi ni mënuñ sax am courant déjà lii rek ñuy wax benn problème la ci peuple boo xam ne courant sax mënuñu ko amal seen bopp ñenn fa ne ñooñu dinañ avancé sans énergie peuple boobu dina avancer non jamais gis ngeen catastrophe yi lii moom yàlla moo ñu may ñu teg ci bët mi ngi nii bi mooy benn xam-xam boobu xam-xamu lan la xam-xamu aduna la du xam-xamu diine jàng ba mën a génn énergie ci géej gi jàng ba mën tey jant baa ngi nii di ñu sonal guddeeg bëccëg ci tàngaay ñu mën a récupérer tàngaay boobu tey am énergie solaire sans ñu ut fii ay lu kenn xamul te pourtant alal ji mi ngi fi ah pourtant moyens yi mi ngi fi ah mais lan moo tax mënul nekk ñàkk conscience nekk ay al toppee toog di xaar croiser les bras di xaar ay ñeneen ñëw di ñu di ñu ko indil di ñu ko defal muy lu garaaw mbokk yi beneen bi mooy ñàkk xam-xam boobu moo tax ñu nekk ay al toppe waaw dañuy toppaate rek ku créé dara rek ñu ñëw xool loolu ci yow ba mokkal ko ñëw après def ko ay al toppe lañ ma jox leen benn misaal bu ndaw xoola xale yi góoru ndakaaru seen tuba yi fan lañ koy takk est ce que ñàkkul fii sax ci bâche bi ay yoo xam ne seen tuba yi ñu ngi ci seen xotti taat jullit laa wax ne jullit boo xam ne li muy def amu ci sax conscience bu leer ndax li nit war na ko def wala war ko def tubéy lan la doon jëriñ tubéy tubéy lu mu doon jëriñ mbokk yi du ci solaal sa awra su jullit bi demee ba tubéyam ci ay poojam la koy takk silib bi mu jiital di génn mais loolu est-ce que conscience dëgg la xale bu jigéen bi dem génne ay yaramam lépp ci biti ween yi ba ci suuf lépp ay génn loo soxlawul rek yow yaa ko xoolul ah mais boo defee attention rek gis booy xool ñaari yoon ñett rek nekk en direct mu baasara est-ce que loolu est-ce que loolu nite la est-ce que loolu nit ku nite dina ko def loolu mooy wax ji kon ngeen gis loolu def lu ko waral mooy ñàkk xam-xam mbokk yi xam ngeen ne ci xam-xam ci la doomu aadama di avancer wa yataxaqaq li nafsihi al izza wal karama ci xam-xam la doomu aadama di amee teet dange ci lay nekkee nit ci lay amee personnalité ko amul xam-xam kenn du la respecté jamais kenn du la nawloo abadan réer googu ma doon wax ñaar lañ ci boole réere diine réere adduna wa jahlu abnaul islam al yawm huwa jahlul murakkab min al jahl bid din waljahlu bi dunia faqad jahalu l islam wa xaqiqata ndeysaan réere nañ islam ak ay dëgg-dëggam dëgg-dëggu l'islam lan mooy l'islam lan moo taxoon l'islam jóg lan moo tax yàlla envoyé ñu islam yoon ni ñuy prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dëgg dëgg dëgg xamuñu ko ndeysaan wallahi julli ji xamuñu lan mooy islam dañuy làmbat rek nekk ay taxankatu guddi alhamdulilah nañ sant yàlla ñun tey bu ñu yàlla natt woon ñu dund ñu judd fekk dëkk boo xam ne sans islam kon kenn ci ñun du tuub d'accord ngeen suñu juddoon fekk pays bi ay yahud lañ wala ay nasaraan lañ mbokk yi ma ni kenn ci ñun góor ak jigéen du tuub xam ngeen lu tax parce que defuñu benn gëstu pour xam dëgg-dëgg diine bi ku nekk rek sa papa ak sa yaay bi mu la juree fi mu la bàyyi woon foofu nga yem nangu woo avancé nangu woo avancé benn yoon mbokk yi réer googu nga xam ne moom la ñu réer dëgg-dëgg lislaam ñu daal di sori ñu summeeku bu baax ci sariya bi ñu jàpp lislaam julli la koor la azaka aji màkka wala sila lahu bi xayaatihim wa nizamihim ñu jàpp ndeysaan li gën a ruslu mooy dañu jàpp l'islam julli kese la julli soo ne waa ji yow ndax jullit nga mu ne waaw waaw jullit laa kay léegi léegi sax laa laa jógee naafi la ci jàkka ji ndax woor nga mu ne woor naa ñaata jour nga wooragum mu ne non woor naa lépp ku baax ki ne la woor naa lépp keneen ki jàpp na ne islam aj màkka la ñu jàpp ne islam amul relation ak sunu dund julli naa woor naa su ma amee alal joxe naa azaka su ma mënee aji aji naa après jeex na ndeysaan waaye sa kër gi nooy dundee yaag soxna si yaag doom yi yow mii nekk jeune sa jeunesse sa dund yan relation nga war a am ak l'islam mbedd mi quartier bi dëkk bi loolu yëpp ñu jàpp ne l'islam waxu ci ak ñun wala si wala silata lahu bi hayaati ñu jàpp ne islam amul benn relation ak sunu dund waxu ci dara ñun ñooy def lu ñu neex su julli jotee rek ñu dem julli dafa lu la neex bu koor jotee nga woor dafa lu la neex soo amee alal nga génne azaka dafa lu la neex après nga dem aji maaka jeex na fa kaanat natijatu zalika taaxuruhum wa xuduucihim wa daafihim limaada li anna al islam al haqiqi aqida wa ibada wa sharia ba ñu jàppee islam julli kese la koor kese la aj màkka kese la amul lenn lu islam wax ak sunu dund ñun daal nañu mel nu nu neex mais bu julli jotee nañ julli nanu mel nu nu neex bu koor jotee ñu koor nanu mel nu nu neex su aj màkka jotee ñu aji leneen yàlla daal ñett yi lañ ko mënal ñett yi lañ mën leneen yoonu yàlla nekku ci ba ñu jàppee loolu lan la ñu jural mooy ñu tardé su tardé mbokk yi tardé tardé lañ def tardé te balaa ñuy xam ne dañoo tardé rek ñu dugg bàmmeel caaxaan yi nekk ci dëkk bi ku ci nekk ba dee yóbbu nañ la ci jàkk ji rek sang nañ la sang nañ la teg nañ la ci oto gas nañ bàmmeel bi dugal nañ la rek delloo ci suuf rek sa pro nga am problème bu leer jeex ren nit ñi ñëw ñibbi si fii commencé toggi ndogu commencé rey seeni nag taal seeni cere di jaxal ak a saraxe fekk yow yaa ngi fee ci musiba naaru laay wallahi alazim wallahi alazim Sénégal quatre vingt quinze pour cent yi ñuy wax musulman dañ koy wax ni ci kaw rek mais amul soo waxee ñu ne dëkk bi genn wàll gi ay jullit lañ loolu fan la feeñ question bu ma leen laaj la après na ngeen tontu na ngeen wax loolu fan la feeñ su fekkee ay jullit ñoo ëpp ci dëkk bi njullit googu jullit yi ëpp ci dëkk bi fan la feeñ barki démb damay wax ak benn waay mu ne seen ñaari professeurs yoo xam ne du ñu woon ay musulman dañu leen affecté woon Tamba Matam Matam astaghfirullah Matam mu ne ñaari professeurs yi du ñu ay jullit professeurs yi di wax ak élèves yi ci biir classe bi ne leen daal di posé posé benn question ci biir classe bi daan ne élèves yi mais ñun dañoo seetlu ne benn professeur bi ne damaa seetlu ne man ak diw dong ñooy ñoo fi ay jullit biir Tamba mais camion sangara bi chaque jour semaine bu nekk mu indi sangara moom fees dal mais sangara bi est-ce que ñun ñaar ñoo koy naan ñu dul ñu dul jullit da ngeen loolu ma wax waa ji dane dëkk bi yëpp ñoom ñaar ñi ñoo dul jullit te semaine bu nekk camion sangara bi indi sangara yan ñooy naan sangara si ñoom ñaar ñoo koy naan tontu bi mooy déedéet kon bu nax suñu bopp mbokk yi bu nax suñu bopp góor ak jigéen bu kenn ku toog fii di nax boppam islam du julli kese du koor kese comme niñ koy defee ni nekk sax ramadan su nekk nii jàkka ji day fees ba imaam du am fu mu taxaw bi bi koor gi commencé foo gis tuub na yëpp jama ah non damay sellal quoi non non mbokk ma damay sellal di yaaram yaaram lu koor gi des na ñaari fan nga commencé dégg publicité yi ci rajo yi ce soir diw au ah te ñooñu ñoo doon woor ah ñooñu ñooy ñi doon woor mais lii kan la kan la ñu nax damay laaj kan la ñu nax kan kan la ñu nax sunu bopp olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo faju mbokk yi ñu jàpp ne islam dëgg-dëgg nañu yëg ne islam dëgg-dëgg pas-pas la aqida aqida wa ibada wa sharia loolu mooy islam mbokk yi islam dëgg-dëgg pas-pas la bu nit di fas ci xolam suñ ne pas-pas pour xale xale yi dégg ko mooy ngëm-ngëm la bu nit di gëm islam ngëm-ngëm la bu nit di gëm mais nekkul lu ñuy gëmantu nekkul lu ñuy làmbatu mais gëm-gëm la keroog ba ko saxaaba yi gëmee jaraloon na leen ñu dee ndax moom keroog ba ko saxaaba yi gëmee jaraloon na leen mu génn ñu génn seeni biiri kër keroog ba ko saxaaba yi gëmee jaroon na leen ñu dox ci guddi ak bëccëg ba seen wewu tànk yi ak seen deru tànk yi daal di teggeeku xoolal bilaal bi ko gëmoon lan nga gis ñu def ko ci njëlbeenu lislaam lañ ko jàpp di ko dóor mu naan ahadun ahad sumayya jigéen la ci lañ ko rey Musab ibnu Umayr ci lañ ko rey ñun diine jooju lan la ñu jaral lan lan la ñu islam jaral réellement suñuy wax dëgg lan même suñu mag ñi nekkoon fii sax nga xam ne islam jaraloon na leen islam jaraloon na leen ndeysaan xoola Cheikh Ahmad Bamba islam jaraloon na ko ñu génne ko exilé ko ba mu naan axrajtumuni naatiqiina bi anni la abdul ilahi la mujahidu El Hadji Omar jaral na ko mu takk xare xeex ba des ba banjagara waaw ñun lan la ñu islam jaral ku nekk nag fi nga toog tegal sa baaraam sa dënn laajal sa bopp man lan la lan lan la ma islam jaral ku nekk laaj ko sa bopp fi nga toog ku nekk laajal sa bopp fi nga juddoo ak léegi lan nga def ci diina ji lan lan nga ci def lan nga ci def ku nekk laaj ko sa bopp laajal sa bopp diina ji bi ma ci nekkee ba léegi man lan laa ci def ndeysaan lu dul fecc ak taas ak ndagara walle loolu de lañ ci def ak fekk diina ji li ñu ko tabaxoon ak fekk ñu tabaxal ñu ko indil ñu ko def ko ba mu baax ñun ñu ñëw yor suñu marti di dajji li mag ñi tabaxoon yëpp dajji nañ ko ba pare nag di leen tiitaroo di leen tiitaroo ah di tiitaroo mag ñi fekk mag ñi fi ñu jaaroon ñun jaaruñu fa feneen lañ jaar boycotté jaar ci beneen yoon ba pare di leen tiitaroo mbokk yi islam pas-pas la ngëm-ngëm la bu nit di gëm mu jaral ko lu nekk waaye sharia la dund la bu nit di dund waaye jaamu yàlla la mu jaral nit ki muy mu koy def guddi ak bëccëg gis nga comme tey ni nga woore ci waxtu wi nu toll kañ lañ gëj a lekk ca fajar instant bi lan moo tax kenn ci ñu ñemewul lekk kenn ci ñu ñemewul naan instant bi ñu toll lu tax lu tax c'est parce que da nga ne damay jaamu yàlla du loolu yàlla moo ma sant ma xiif pour moom yàlla moo ma sant ma mar pour moom kenn ku nekk ci ñu lool ngay wax yàlla ma sant naa ko jaamu waaw lu tax léegi su weer wi jeexee ñu delluwaat ci sunuy caaxaan lu tax xanaa yàlla koor ba koor lañ koy jaamu yàlla dafa am fu mu wax ak ñun ne na ngeen ma jaamu koor ba koor su koor jotee yéen ñëpp sellan leen aj leen gitaar yi aj leen ndënd yi aj leen tuq si ngalam yi na ngeen denc mini yi ah denc xappatee xóotal yi di musóoru di muuru yori ay kurus koo gis mu naan te waxul dara xamul lu muy wax boo ko ne la damay sellal la damay sellal fekk waxul dara ah ah allahu akbar allahu akbar mbokk yi fekk xamul dara dara dara dara ci li muy wax ndeysaan léeg-léeg nag kenn mu ne astafurla la astafurla astaf luy astafurla ah ndeysaan nga gis nga gis ab julit bu ñëw fekk ñuy wàcce kaamil de wàcce kaamil ñu ne ko nii benn jukki mu ne ni nii yor kurus nag ku ku mënul jàng alxuraan mënoo wird ku mënul jàng alxuraan mënoo wird bala ngay wird fa nga mën a jàng alxuraan parce que looy wird astaghfirullah moo nekk ci alxuraan wasta istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara looy wird laa ilaha illa allah moo nekk ci alxuraan faalam annahu laa ilaha illa looy wird alhamdulillah moo nekk ci alxuraan bismillahi rahmani rahim lu ci nekk alhamdulillah loolu moo ci nekk kon ku mënul wird ku mënul jàng alxuraan mënoo wird kon naka lañ lay joxe benn jukki ne la ko jeen nga nga ni daan ni na daan ni maa ngi ci doy na ko waaw nee na man kurus gi doy na kurus gi loolu doy na waar doy na waar il faut ñu jàng suñu diine bi diine bi ban baat moo ci njëkk a wàcc iqra iqra lu muy teg mooy jàngal saa yoo mënulee jàng bu yeboo nga jàngi pourtant xoolal suñu wàllu adduna portable yi portable yi ñoo ci gën a ndaw tey buñ ci mayee kenn benn wala mu jënd benn demal deux mois trois mois nga ñëw xam na lépp ci biir nu mu def ba xam ko ah nu mu def ba xam ko mbokk yi daf koy jàng day di koy jaral mu dem ci koo xam ne dafa lan ak lan expliqué ko lu tax sunu diine jaraluñu loolu lu tax jaraluñu ko kon mbokk yi nanu góorgóorlu nanu góorgóorlu mbokk yi ñu nekk ay julit ñu gëm sunu diine ñu xam ne islam yad'u ila al ilmi wa yahuddu alayhi wa yad'u ila taqaddumi islam day woote ci xam-xam yàlla bi mu bindee aadama balaa mu koy wàcce ci kaw suuf def ko jàngal dog ko wàcce wa allama al aadama al asmaa kullaha yàlla daa jàngal aadama dog ko wàcce yàlla balaa mu yónni muhammad daf ko ne iqra yàlla ne julli bi balaa ngay jaamu yàlla faalam annahu la ilaha illallah faalam la ko wax xamal ba pare doog a wax la ilaha illallah balaa ngay jaamu yàlla balaa ngay julli mbaa ngay woor mbaa ngay mbaa ngay jàngal ba pare doog a jaamu yàlla faalam faalam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik loolu la yàlla wax muhammad ndeysaan ñun nag tey ñu bëgg a nekk ay jullit yoo xam ne dañuy làmbatu dara tardé lu nu dara tardé lu nu lu dul ñàkk a jàng adduna ñàkk a jàng diine ndax kenn doo àllaaxira de ndeysaan kenn doo àllaaxira jaa ngi ñàkk a jàng adduna ñàkk a jàng diine adduna bi dañ koy jàng ñu fi bëgg a tekki dañuy jàng waaw tey ñi raw ci adduna bi yëpp dañoo jàng jàng moo leen fa yóbbu lan moo fi indi portable portable ñi ko defar ay mbër lañu woon ay mbër ndax mbër yee defar portable du ngeen ma tontu waaw ñun nit ñi di jàng pour avancer ñun ñuy jàng bëri Sénégal ñëpp ay mbër lañ mas ngeen gis pays bu dem ci kanam Amérique lan moo leen yóbbu fi nu nekk bëri ah Chine lan moo leen yóbbu fi nu nekk Japon lan moo leen yóbbu fi mu nekk bëri mbokk yi science bi xam-xam bi kenn moomu ko ku jàng rek dem ci kanam ñun ñu nekk fii di bëri tey ñi bëri ñoo ëpp alal ci àdduna ñuy bëri moo tax kenn jàngatul soo demee tefesu géej ci tàkku saan fekk ñëpp simmeeku ñetti fan a ci def sax jigéen ñi danañ futteeku danañ ut doole bëri dañ ngeen gis ay mbër yu jigéen maa leen ko wax de des na tuuti ngeen gis ay mbër yu jigéen te li ma leen wax bind leen ko bind leen ko de Sénégal foofu lañ jëm école yi ay fan a ngi ñëw dootuñu ci gis kenn daara yi ay fan a ngi ñëw dootuñu ci gis kenn ana nit ñi ñu ngi ut doole koo gis mu ngi naan fonde mu ngi naan ñay mu ngi yëkkati poids di yëkkati dënn dina daan dañ koy daan l'essentiel que loolu mooy wax ji loolu du diine mbokk yi bil elmi yataqaddamu l insan ci xam-xam la doomu aadama di avancé ci xam-xam la doomu aadama di tekkee ci xam-xam la doomu aadama di nekkee nit mais ñun africains yi li ñu dal dafa graw te pourtant sooy wax lu mel nii tey fii nu toll ci Sénégal ci jafe-jafe yi ni mu méttee ñu bëree bëri seen mani wallahi suñu bëccëgu tey bii rek conférence tey bii rek war nañu xam ne dañoo tardé conférence tey bii ñu ngi nii indi nañ suñu bagage yëpp mais mënuñu am courant ana courant bi ana mu xoolal ci moment boobu la ñuy tabax ay monument monument di ci def ñaata milliards ñaata milliards tey xaalis boobu bu ñu ko jëloon tey jox ko waa Sénélec tabax ci ay ay ay ay ay sañte yoo xam daf ñuy indil énergie waxuma la sax ci géej gi waxuma mais jant baa ngi nii mais jant bi kan moo ko moom est ce que dafa am ñu ñëw fii nga ñu jant bi bu ngeen ko utiliser da ngeen di dee damay laajte dafa am ay nit yu taxaw Sénégal ne jant bi énergie bi ci nekk dafa haram bu ko kenn laal wala bu ngeen ko laalee dañ leen di dañ leen di rey non mais kenn terewuñ ko mais lan mais ñàkk a ñàkk a ñàkk conscience ñàkk am xam-xam ñàkk nite moo tax lii balaa ñuy jëndal malade bi garab mu dee xoolal dëj xoolal dëj dëj waa ji day feebar de Sénégal ngay gis waa ji feebar wallahi paracetamol mun na ko faj muy wëlbateeku ci kaw lal bi ba dee bis bu deewee la ñuy xam ne kii am nañ mbokk nga gis pasero yeeg quatre quatre yi di dàqante ci buntu kër gi ñu daal di bâche quatre vingt dix bâche dem jëndi quinze nag indi cinquante deux mbana dig dig bu garaaw loolu nga defe ne nga defe ne waa ji nag yooyu ñu rey suñ ko rendi woon def ko ci frigo bi di ko ko suppal dina dee wallahi du dee du dee day génn wér tëng jaar nii di dox am na fi ñu dee ñoo xam ne xiif rek moo leen rey ak coono tooy rek dox ba tas ñëw tëdd dee billahi ay sénégalais ngi dee tooy moo leen rey suñ leen suppaloon nag bi rek nag boobu ñuy rey ci dëj bi buñ ko joxoon bopp beeg tànk yi ñu def ko ci frigo une semaine waa ji bu jaaree ni kenn doot ko xam ne mais dañu bàyyi ba mu dee ba mu dee ñu ñëw nag commencé dajale le médecin après la mort mooy dund bu ñuy dund duñu avancé dañuy sonal suñu bopp rek nax suñu bopp wallahi duñ dem benn waaye daf ñuy daf ñuy daf ñuy daf ñuy tooñ diñu diñu diñu jox misaal bu graaw ci misaalu africain mu ne africain nu mu tardé mu ne yàlla dafa convoqué woon tubaab tubaab xëy di wuy ji yàlla romb ku dëkk Asie ku xonk kooku ne ko foo jëm ne yàlla moo moo moo moo ma invité naa ñëw wuyu si ko mu ne ma gunge la mu ne nañ dem ñuy dox ñoom ñaar ba caag ñu dajeeg africain africain ne leen fu ngeen jëm ne dañu dem ci yàlla mu ne ma gunge leen ñu ne waaw ñu dem ba yegg ci kanamu yàlla ñoom ñett ñëpp ñu taxaw yàlla mu ne tubaab bi loo bëgg mu ne xam-xam yàlla mu ne ko jël mu ne ku xonq loo bëgg mu ne alal yàlla mu ne am mu ne ku ñuul ki loo bëgg mu ne non man dama leen gunge woon rek mu ne man dama leen gunge woon rek man dama leen gunge woon rek kene lan la jël xam-xam gis nga moo tax lu ko neex mu def ñun dañuy toog fii muy defar di mu jox kee lan la def lan la lan la laaj alal moo tax lu mu am lépp la am ñun lan lañ am dara ndax ñàkk conscience mbokk yi yal na yàlla jubal mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ci xam-xam ci la doomu aadama di amee teddañee ci la doomu aadama di teddee loolu lan moo leen koy won dalil bi mooy fi jullit yu njëkk yi yeggoon al muslimuna al awail حين تمسكوا به عقيدة وعبادة وشريعة فقد استطاعوا في نصف قرن من الزمان يقنوا لأنفسهم حضارة أريقة امتدت من محيط الأطلس غربا إلى الهند والصين شرقا keroog ba jullit yi njëkk yi jàppee ci seen diine gëm ko pas-pas ak ibaada ak sharia keroog ndeysaan la ñu avancé keroog la ñu tabaxal seen bopp civilisation boo xam ne tàmbali na ci océan Atlantique bi dem ba Inde jóge Inde dem ba Siin ndeysaan yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam génnul àdduna lu dul islamisé na golfe bi yonent bi génnul àdduna lu dul islamisé na golfe bi julli ñi di war seeni fas di tasaare islam fu ñu yegg si lan la ñuy wax jinaa li nuxrijakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbi al ibad wa min jawri al adyan ila adli al islam wa min taati al ibad ila taati rabbi al ibad fu ñu yegg si rek loolu la ñuy wax adduna bi yëpp fu ñu yegg dañ naan ñun dañoo ñëw pour génne leen ci adduna bu xat bi ngeen nekk yóbbu leen ci alaxira bu yaatu bi dañoo ñëw pour génne leen ci bokkaale bu metti bi yóbbu leen ci maandu te lislaam dañoo ñëw pour génne leen ci jafe-jafe yi ngeen nekk yóbbu leen ci teraanga lislaam ci jamono bu ndaw mbokk yi li tàmbalee golfe arabe bi ñëw ba ci océan atlantique bi dem ba Inde dem ba Siin julli ñu dugal nañ fi lislaam lan moo tasaare lislaam ndax bëri moo ko tasaare saxaaba yi ay mbër lañu woon ay rappeur lañu woon ay disco ay disquette loolu moo tasaare lislaam abadan ay jàmbaar lañ woon ba yàlla tagg leen daan ne rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi yàlla moo leen tagg ne rijal ñi ay góor lañ ñaareelu tomb mooy ci ñàkk xam-xam mooy taxabut ak siyaasi yi xoolal politique li tax sunu politique mun ta baax ñu jël ay milliards di ko def ci ay monument di ba pare lu islam wax ñu interdit ko gis ngeen semaine bi passé woote nañ assemblée parité woote nañ jigéen bu ko kenn jongalati woote nañ nangam ak nangam woote nañ nangam ak nangam woote nañ nangam ak te yooyu islam la ñuy xeex au lieu ñu def politique bu baax mais dañuy politique di contre l'islam borom kër gi nag su rëddee këram tabax ba mu rafet ñëw def fi la yow nga judd di doom wala nga ñëw nekk gan ne kër gi borom kër gi du féex da ngaa nar a am problème ñun loolu mooy suñu problème adduna bi kan moo ko moom du yàlla ku moom suuf si du yàlla ku moom asamaan ku moom jant beeg weer yi yàlla rëdd addunaam wàccee fi ñu nekk ay jaam ñu ne li yàlla bëgg du fi am dund bi du neex ku ne borom kër gi li mu bëgg a tëral ci kër gi du fi am kër googu du neex mbokk yi loolu moo tax yàlla nañu wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka maisha danka bi ñuy dund dara waral ko lu dul al irad an diinillah soo rek moo waral maïsa dankan bi ñuy dund mooy dund gu bon gi ñuy dund tey dund gi nga xam ne saful dara amul lu muy xeeñ amul lu muy neex sunu dund bi amul dara lu muy neex mbokk yi parce que du dund islam bu wér dund nekki nekkantu xam ngeen nekkantu loolu xale yi di def fowantu bu taw bi tooyee xale yi dañuy ñëw di fowantu di defar ay kër ay kër ñun tamit noonu la ñuy nekkantoo ay julit di nekkantu julit kenn du ko nekkantu dañ koy nekk julit kenn du ko nekkantu da ngay nekk julit loolu la yàlla wax yaa ayyuha alladina amanu udxulu udxulu la yàlla wax udxulu udxulu fii lu lan la fii lu amr udxulu fi silmi kaafa ee yéen ñi gëm yàlla ku woote yàlla ñan lay woo ñi ko gëm lan la leen di dee mu ne diine ji dugg leen ci lépp diine ji da ngay dugg amul dugal benn tànk génn benn tànk loolu amul ci l'islam il faut ñu xam ne l'islam doo dugal benn tànk génn benn da ngay dugal ñaar yëpp wala nga bañ a dugg nga bañ a bokk da ngay weex cal mbaa nga ñuul kukk waaye weexuma ñuuluma loolu amul ci lislaam nga bëgg a nekk julli bu àjjuma jotee nga dem julli ji samedi nga dem baali yow jullit nga xoolaatal sa bopp nga bëgg a nekk jullit lislaam ne la bul lekk yàpp mbaam bul naan sàngara bul njaaloo bul sàcc bul fen bul rambaaj bul sol lu bon ah nga ne ah loolu de daa métti wax dëgg yàlla nag yéen seen diine ji daa tàng loolu nag li yàlla di tere nag moom wax dëgg yàlla kenn mënu koo bàyyi da ngay dégg ndeysaan li yàlla di tere kenn mënu koo bàyyi est-ce que jéem nga pourtant tey boo feebaroon nga dem docteur bi ne la booy lekk xorom di dee da nga koy bàyyi wala doo bàyyi da ngay bàyyi boo demee mu ne la yow da ngaa sukkar da ngaa jabet booy lekkaat di dee da ngay bàyyi wala doo bàyyi ah docteur bi tere nga bàyyi yàlla tere nga ni doo bàyyi lu tax docteur bi dalaa tere nga bàyyi yàlla ne la bàyyil nga ni bàyyiwuma nañ seetaat suñu bopp nee naa leen julit kenn du ko nekkantu dañ koy nekk julit da nga koy nekk amul nekkantu lan mooy nekk julit mooy ni yàlla wax naay dundee noonu laay dundee ni yàlla wax naa solo noonu laay solo li yàlla wax laa lekk loolu laay lekk li yàlla wax naa ko naan moom laay naan li yàlla wax naa ko liggéey moom laay liggéey xoolal tey ñaata façon métier ñoo am ci adduna bi yu nit ñi di dund te métier yi baaxul est-ce que amul ñu def métier bëri amul ñu ko def profession lan mooy sa profession mu ne man mbër laa ñu bind mbër lan mooy sa profession mu ne man musicien ñu bind loolu du métier luy sa métier man damay jaay pays bi luy sa métier man salon coiffure laa yor loolu du métier ah man mannequin laa damay def défilé de mode loolu du métier te tey xoolal ñun ñi ñëpp genn wàll gi ci xaalis boobu la ñuy ndogoo war ba ngoon dem ndogoo xaalis boo xamante ne ci bër nga ko jële wala ci football nga ko jële wala ci mannequinat nga ko jële wala yaa ngi ko jële ci fu ñuy jaay sàngara wala yaa ngi ko jële ci léttu mees ah mooy lan mooy mooy dem àll ba ba pare di di di di di lan di lan di laaboo say saw dem àll ba di laaboo say saw ndax di nga set ku laaboo say saw doo set da ngay gën a takk mooy li ñuy dund tey mbokk yi politique bi problème bu rëy lañ ci am taxabut la ñuy def fi siyaas yi fi siyaas ya làmbat da ngay dégg ñu ne la politique eggul al alaxira moo tax politiciens yëpp nekk di nekk ci lu leen neex kenn du def maandute ci li li ngay jiite ndax lan da nga ne alaxira yeggu fa lu ma neex def lan moo am tey ci sunu politiciens yi lan moo am luñ la wax du dëgg luñ la wax du dëgg lu ñu wax tey suba ñu ne waxuñu ko woon loolu loolu diine la yaa ayyuha alladina amanu lima taquluna kan ma eggali aaya bi yaa ayyuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun xoolal tey sunu gars yi bu doon loolu la sax jàmm la mais xoolal alalu réew mi fu ñu ko dugal chaque jour nga dégg ku détourné milliard te li garaaw li garaaw ci Sénégal mooy tey ji yéen ñii yéen ñi toog fii su benn waay ñëwoon léegi sàcc fi portable ñu jàpp ko nuñ koy def nuñ koy def dañ koy dóor ba mu wul ba mu wulli ko ba mu nooy su benn waay sàccee milliard ñu ne non sàccul dafa détourné dégg nga ñu ne dafa détourné ki sàcc portable ñu ne ko ki sàcc la ki xoolal lu toll na milliard ñu ne def ko détourné sàcc la lan mooy détournement utal ay baat xoolal mbir yi pour naxaate dañu utal mbir yi ay baat yoo xam ne moom lañ koy protégé barki démb damay tafsir ci benn jàkk mani fii ku sàcc ay milliards buñ la yóbbee kaso da ngay dindi ci biir milliard bi vingt millions dem yóbbu tribunal def caution dem sa kër toog waaw caution ngay joxe dem toog sa kër ci suba si rek benn waay ñëw ne ma wallahi damaa déglu rajo li nga doon wax démb dama déglu rajo tey ñu wax ko ci mu ne benn waay bu sant mbub dafa am ku mu doon liggéeyal ci société am waa ji sàcc xaalis bu bëri ñu yóbbu ko ci xaalis bi mu daal ci joxe caution dem ñibbi ah kon gis ngeen te tey bu fekkoon ne waa ji sàcc portable ñu yóbbu ko police est-ce que dina wax ne ñu ne portable ñaata lay jar ñu ne vingt cinq mille mu ne ma joxe ma joxe dix mille ba caution dem sama kër suñ koy wax waa police dinañ ko nangu dama leen laaj dama leen di laaj ndax waa police dinañ nangu lool waa ji sàcc portable vingt mille biñ ko yëgalee ko yow dañ lay tëj dañ lay tëj trois mois mu ne non portable lu muy jar ñu ne vingt cinq mille mu ne bàyyi leen ma joxe dix mille caution ngeen bàyyi ma ñibbi kenn du ko nangu gis nga dix mille yooyu bu ko génnee police yi ñoo koy lekk day perte mais xoolal waa ji day jël vingt cinq millions ci li mu sàcc daan ne caution ngi nii ñu ne waa léegi dama nga toog si kër bul bougé nag toogal déglu ñu kenn du ko woo nag ba yomal xiyam waaw kenn du ko woo ba yomal xiyam ñi ma gisoon ñu joxe caution kenn woowu leen kenn du leen woo kon bu nax suñu bopp ci wàllu woowu beneen bi mooy itraab fi l iqtisaad itraab fi l iqtisaad dañu am problème ci économique suñu waxee olof ñu ne koom-koom koom-koomu réew mi dafa am problème lu ko waral mooy amuñu ay économistes yu baax économique réew mi li koy liy tax économique réew mi baax foofu defuñu fa alal ji dëkk bu nekk dafa am réalité boo xam ne suñ ko defee ci seen économique dañuy dem Sénégal suñu économique xam ngeen fan la ko yàlla def ci mbay ci mbay la ko yàlla def yàlla may nañu espace bu dul jeex xam ngeen ne Sénégal amoon na temps ñu jàng histoire professeur yaa ngi fi toog ak ak ak enseignant yi Sénégal amoon na temps mu nekk deuxième pays troisième quatrième ci gerte ci adduna bi wala xam ngeen loolu wala xamu leen ko ñu jaay adduna bi yëpp ñu nekk deuxième puissance xaw ma premier xaw ma troisième di jaay gerte ci adduna bi waaw est-ce que suuf soosu dafay jóge boo génnee Thiès àll bi kenn dëkkatu ko suuf a ngi fi ndox a ngi fi tey gars yi dañ naan bëgguñu bay ñii dem Espagne li ñuy liggéey ay góor ak jigéen laa yi ñuy dugal fii ci ay gaal yóbbu leen Espagne li ñuy liggéey ah dañuy bay ñun ñëpp ay baykat lañ bu ñu demee xam nga ci li ñu nekk toolu tabaté ak toolu raisin yi terminé loolu lu tax mënuñu ko def fii dugg leen ci waalo bi dugg leen waalo bi ngeen xool Sénégal ceeb kenn waru ko fi woon jënd jënd ma wax leen ko ceeb gerte xoolal àllu Casamance bi ci fruit kon ngeen xam ne ñun yàlla may nanu mais ñun ñoo bañ a avancé benn rek ci loolu pour wax leen économique réew mi fruit boobu di aji ñor foofu yan machine yan yan jumtukaay lañ def ba fruit yooyu du yàqu jën yi di génn ci biir géej gi léeg-léeg nga dégg bay sàmmkat yi nappkat yi ne ñun jën yi sax amuñu suñ ko denc jën yi amuñu dañuy bay ba mu bëri daal di koy sànniwaat ci biir géej gi mu daal di yàqu ma ni alal ji am na fi suuf si am na fi espace bi am na fi ndox mi am na fi mais alal ji lañ jëlul dugal ko foofu fan lañ jël alal ji di ko def ci bëri ci bëri la bëri lañ ko def bëri fan lañ ko def ci musique fan lañ ko def ci way benn waykat mooy ñëw rek daan ne sama cassette bi dama ko bëgg a génne dama am problème gars yi daal di koy ñaanal audience ci président président daal di koy jox ay millions mu ñëw financé cassette bi terminé baykat bi ne man de wax dëgg yàlla sama tool bi machine machine pompe laa bëgg rek pour mu roose ceeb bi ceeb baa ngi dee ñu ne ko xaaral dañuy woote budget réew moomu du dem dañuy sonn de mais bu fekkee nii lañu bëgg a dundee duñ dem te su kanamee suñ demee ba ci kanam ci ay at pour dund fii dina métti trop moo tax il faut ñu changer suñu mentalité il faut ñu changer puisque ñu xam ne ñun ay nit lañ gis ngeen tubaab ñu weex ñii ñu weex ñii yaram la yor ñu yor yaram ñu yor bopp ñu yori bopp nit ku weex li ci yaramam lépp moo nekk ci yaramu nit ku ñuul lan moo tax ñu weex yi nangoo avancé ñu ñuul ñi tardé lu tax mooy ñee dañuy liggéey ñii yàccaaral ñee dañoo nangoo jàng ñii nanguwuñu jàng beneen tomb bi mooy tafakkuk fil ijtimaa yi xoolal ci société bi ni ñuy dundee tey seen gox bi lan ngeen di jooy problème bi gën a rëy fii lan la mbënd mi mbënd mi lu ko waral gis nga de damaa laajte rek am ku ne mbënd mi mbënd mi lan moo ko waral mooy ñëw di fàkk di dëkk sans utal ndox mi fu mu jaar tubaab bi bi mu ñëwee Dakar mais dafa fekk Dakar di am mbënd mu utal ko ay conduite canalisée dugal ko biir géej tubaab bi moo defar canalisation Dakar mais Dakar amul inondation lu tax fii parce que fii nanguwuñu ko est-ce que géej gi dafa sori fii est-ce que fii géej gi dafa sori est-ce que fii àll bi dafa sori xoolal fii rek laa wax fii ak Dexmeer ñaata tiwo rek lañ ko war a branché ndox mi dem foofu su ko defee ndox moomu sax duñ ko perte mais dañ koy bay parce que ay tool lay roose luñ fa bay mu dellu siwaat ci biir kër gi ah ndox mi saa di saa fii bu fekkoon ne Europe la wala Chine la ndox mi du yàqu dañ koy utiliser di ko dundee ñun nag lay sànni ñun dañu ñun dañu nanguwul avancé benn yoon nanguwuñu nekk ay nit même lii nekk fii sax dañuy toog di xaar banque mondiale banque mondiale ay lan lañ ay tubaab lépp lu nekk Afrique lépp lu nekk Sénégal ci ay problème dañuy toog di xaar ay nit ñu ñëw dimbali ñu pour ñu defar ko loolu moo ñu tere avancé il faut ñu nekk ay nit xam ne yàlla tabaraka wa taala wàccee na ak ñun parce que jox nañu xel ñee yàlla dafa leen jox xel ñun yàlla dafa ñoo jox xel xel lu muy jëriñ mbokk yi xel lu muy jëriñ du xalaat tey boo ne woon tëll ci benn kër daa ne asalaamu aleykum ñu ne la wa aleykum salaam exil exil nga exil ñu ne toogal nga gis canapé bi ak gaz bi canapé baa ngi ni gaz baa ngi ni dañ leen a toogal rek fooy toog waaye dañ leen toogal rek canapé baa ngi gaz baa ngi fooy toog bu ngeen ma tontu ci canapé bi ngay toog lu tax nga toog ci canapé bi pourtant pourtant waa kër yi waxuñu la waa kër yi waxuñu la toogal ci canapé bi dañ ne toogal rek mais sa xel nga nga nga utiliser nga ne ah ci canapé bi la ñuy toog gaz bi moom ku ci toog demal laaxira bu sa xel nga utiliser lu tax xel ni ñu yàlla may nanguwuñ ko def ci sunu réew mi pour mu dem ci kanam nanguwuñ ko def ci sunu bopp pour ñu dem ci kanam lu nekk rek ñu toog boo nee santé ñu ne banque mo nañ xaar banque mondiale boo nee ah mbënd mi ñu ne nañ xaar banque mondiale boo nee courant ñu ne ñu ne nañ xaar banque banque mondiale mais ba kañ banque mondiale duñu ay nit ñun duñu ay nit lan moo tax mënuñu góorgóorlu mooy yi ñu yàlla may alal ji ñu yàlla may ñu nangu góorgóorlu tey bu ñu jëloon ay jeunes rek ay tiwo tiwo tiwo dafa manqué Sénégal dafa manqué ci àddina bi tiwo tey boo jëloon xale góor yi gunaas yi rek gunaas nga leen yéen yéenay defaral seen bopp canalisation dem géej bu indi sax machine wallahi dinañ ko gas ba mu yegg wala duñ ko gas te doo leen fay dara sax da nga naan leen liggéey leen seen bopp rek pour seen gox bi dootul taa jaaral leen ñi tuyau bi yóbbu ko def meew di ngeen ko yóbbu wala du ngeen ko yóbbu ku nekk rek wala 3 mètres dañ lay wax nga gas 3 mètres gaa yi ran nii ba fii léegi ñu liggéey ko seen bopp wala mais ñun nanguwuñu nanguwuñu dem di la ñuy toog affaire bi xam nga lu ñu koy def yalwaanukaay gars yi nee nañ Sénégal bu kenn yalwaanati bàyyi yalwaankat yu ngand yi nag yalwaankat yu ngand yi lañ bàyyi ñu ne bu fi kenn yalwaanati yalwaankat yu ndaw yi dañuy dóor sàcc yu ndaw yi duñ dóor yu ngand yi di dóor yalwaankat yu ndaw yi duñ dóor yu ngand yi sàcc yu ndaw yi mooy ñi sàcc portable ku doog paaka ñu ne dóor leen ñi sàcc milliards ñu ne non ñi dañoo détourné sàcc ñi ñoo détourné ah mu nga loolu mooy wax ji wax ji yëpp lii la kese la lii rek moo tax nanguwuñu dem kon tomb boobu tamit foog ñu góorgóorlu ci mbokk yi beneen bi mooy tadahuran fil axlaaq boobu moo gën a garaaw nag mooy jikko yu yàqu bokk na ci li ñu tardeel mooy jikko yu yàqu xool leen njaaloo bi ni mu takkar naa la Sénégal xale yi góor yi dañuy ëmbal rek xale yi jigéen yi ëmbal rek foo romb ñu ngi ngénte teg musique yi waaw li maire bi di wax nee na xale jigéen ñi bëgguñu lu musique musique bi mooy taranga bi bu ñu indee musique bi rek taranga bi ñëw na jeex na man musiqueal nañ ma biñ may tuddal terminé loolu njom la est-ce que loolu diine la est-ce que loolu ngor la jikko yu yàqu yi xoola xale góor yi seen tubéy yi fuñ koy takk ñàkkul ci baas bi ñoo xam ne buñ jógoon léegi nga gis tubéy biñ jiital loolu diine la jàpp sa tubéy indi ko ba ci fii ma léeg-léeg sax nga gis ab grand am bu am sikkim def ko léeg-léeg ma nekk ci jàkka ji di gis benn waaye bu dugg ñëw nekk sama kanam rek daal di allah akbar daal di rukkoo si jóot nga gis tubéy bu ndaw bi ne guru ci bi boo paree man la julli wala de lu tax julli ma ma ne sa silib bi mi ngi ñu diggéen non yëkkati nag takk léeg-léeg nga gis kuy daw de kuy daw di yëkkati tubéy ji di yëgal ci kaw di daw di yëkkati tubéy koo kañ lay yegg loolu du diine loolu du et puis li gën a garaaw fan lañ ko jëlee ci ay góor jigéen góor jigéen yi ñoo doon def loolu loolu yëpp góor jigéen la Europe tubaab yi ñooy def loolu koo gis mu def ko góor jigéen la am xoolal li gën a dee am na benn société boo xam ne ñaari góor jigéen ñoo ko moom ah non bàyyi leen rek société boobu tey xale góor yi seen chemise la ñuy sol seen i seen i seen i ceinture la ñuy takk te ay góor jigéen ñoo ko moom te ñëpp xam nañ ay góor jigéen la mais dañuy dundal société bi ñun fuñ jëm mbokk yi bu ñu nax suñu bopp nañ leen góorgóorlu nekk ay jullit xoolal jikko yu yàqu yi am tey fii nga xam ne dem nañ ba kenn amatul ngor kenn amatul diine kenn amatul jëm ku nekk lu la neex rek da ngay topp sa bëgg-bëgg lii laa gëm loolu laay def lii laa gëm loolu laay def buñ la nee yàlla bëgg ko sax nga ni non man lii laa gëm ah man lii laa gëm inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yonent bi bi ko yàlla di yónni xam ngeen lu tax yàlla yónni yonent bi lenn kese moo tax yàlla yónni ko du pour ñu julli du pour ñu woor du pour ñu azaka du pour ñu joxe màkk innama bu istu li utammima makaarimal axlaaq loolu dong moo tax yàlla yónni yonent bi mooy lan yàlla daf maa yónni pour jikko yu rafet yi ma tabax ko benn waay ñëw ne fekk yonent bi toog mu ñëw ci kanamu yonent bi ne ko yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma diin mu ne ko ad diin xusnul xuluq waa ji daal di jóg génn ay minute waa ji ñëwaat ci ginnaaw yonent bi démb bi muy ñëw fan la ñëwee ci kanam mu bàyyi ba suba si mu ñëw ci ginnaaw ne yaa muhammad ma diin mu ne ko ad diin xusnul xuluq waa ji demaat beneen jour mu ñëwee càmmoñ ndeyjoor ne ko lan mooy diine mu ne mooy nga rafet jikko mu ñëwaat càmmoñ waa ji ñaata côté la ñëw waa ji ci ñaata côté yi la ñëw ci ñeenti côté yëpp ñëw na ci kanam ñëw na ci ginnaaw ñëw na ndeyjoor ñëw càmmoñ benn laaj lay laaj benn tontu lañ koy tontu lan mooy diine yonente naan ko ad diin xusnul xulq diine mooy nga rafet jikko xam nga waa ji bi mu bëggee jóg dem lu ko yonente bi wax da ko ne toogal mu toog yonente bi ne ko innama bu istu li utammima makaarima al axlaq yàlla daf maa yónni pour ma mottali jikko yu rafet ana suñuy jikko yaramu neen wi ñu def yaramu neen yi xale jigéen def ci mbedd yi ana seen i ndey ana seen i bàyyi dem ba weeni jigéen amatul sutura moo tax kuy sey wen di génn doo nàmpal wala yu jamais jumbu jumbax jigéen ci biti ku sa jumbax ak sey wen di génn nga defe ne yàlla dina la may wala yu nga lu mu lay may wëyyu ñaari baat la ñoo tolloo ñaari fiiral waliyu wëyyu tagg leen ko natt leen baat yi wali yu wayu ñoo bokk même baat même kalima ñoo bokk wasnu wasnu yéen ñu jàng sarf wali yu wayu ñoo bokk jigéen magasinu yàlla la jigéen armoilu yàlla la fan ngeen di denc seen or yi or yi fan ngeen koy denc ci armoil ban armoil bi am caabi armoire boobu or boobu ci boîte lañ koy def ci boîte boîte bi day am caabi wala du am caabi day am caabi caabi nga caabi ko dugal ko ci armoire caabi armoire boobu nga caabi ko ci biir néeg néeg boobu nga caabi ko ci biir kër pour nga dajji pour nga jot or boobu ñaata caabi ñaata buntu ngay dajji foog nga dajji buntu kër gi foog nga dajji buntu néeg bi foog nga dajji buntu armoire bi foog nga dajji boîte bi or sax moo gën a moo gën a moo gën a am valeur tey jigéen or te kat jigéen mooy takk or ah mais or a ko ëpp valeur loolu diine la jigéen day am jikko ju baax jigéen day am kersa bu njëkk ba jigéen bu ne tëll gis ay góor toog fee du leen traversé du romb mukk jamais mais léegi day ñëw naan leen waaw ñu naan ko alors booy mu naan sia waaw yaa ko doxalee ni mu ne wéy lalal naa la mu ne lalli naa seen kër am na xaj mu ne déedéet amul xaj kuy xaj bi wax leen kuy xaj bi paa bi waaw baax na kon mu ngeen ne paa yaay xaj lañ alhamdulilah ah moo loolu la loolu mooy wax de loolu de mooy papa ji mooy waaw mooy loolu suñ ne ndax kër gi am na xaj mooy paa bi ndax xaj la dan leen yàlla jubal mbokk bi nee na ñu dem julli ji ñëwaat la ilaha ah ñun defee na xaj lañ
alhamdulillah mbokk yi ñi ngi tolloon ci jafe-jafe yi nga xam ne dafa taxaw ci kanamu lislaam mu nekk yàqute jikko yi loolu daanaka tey mën nga ne li tax lislaam mënu nekk lislaam mooy jikko yu yàqu yi ci biir ak ci biti tey ñu dem ba mboolem jullit lépp lu ko neex mu def xalaatatul dara amatul kersa ngëm-ngëmam rek la xool ak am amam intérêt mais xoolatul diine bi ci tomb boobu lañ tomboon lañ tolloon ak détails yiñ ci détaillé ñu jël beneen bi comme waxtu wi dafa xat bokk na ci problème yooyu encore mooy balbala fil afkaar déngi déngi ci suñuy xalaat xalaat yi sax nit ñi tey intellectuel yi ñuy wax soo demee ak ñoom débat da ngay gis ñuy tremble kenn du la ci wax lu posé lu wér lu sax kenn ku nekk li mu la ci wax dara du ci ngëm-ngëmam xoolal suñu parti politique yi da nga daan gis ñu ne ñii ñooy waa gauche ñii ñooy waa droite waa gauche ak waa droite ba addina bi doon jeex waruñu laalante waa socialiste ak waa libéral mais xoolal tey amul amul ngëm-ngëm da ngay gis démb sa nooni démb ñooy sa xarité tey maanaam tey réew bi foofu lañ toll gars yi liñ lay wax yëpp kenn ci ñoom gëmul ci dërëm ba ci diine ji ah ba ci diine ji tarixa yi sax gëmuñu ko dañuy wax luñ neex rek waaw balañ koy xam rek ne sëriñ bi jóg jël rajo bi daane nangam ak nangam bu ko kenn def nga dégg ñu ne sëriñ bi day aalu day aalu da dafa daanu leer dafa daanu leer mun na dafa daanu leer loolu loolu la ñuy wax kon nit ñi tey fi ñu toll ci l'islam ci problème yi ak jafe-jafe yi ak défi yi nga xam ne moo lancé wu ci kaw alamul al islam yi monde islamique su jullit yi taxawaatul dara du sotti wax naa leen sànq ne bu ñu nekkantu ay jullit mais dañuy nekk jullit li graaw yëpp mooy nekkantu jullit nekkant gis ngeen gis ngeen supérieur yi taxaw ñee génn ci jumaa ji xool leen lu ñu yore jaru ñuy wax lan la ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp foofu la ñu mujjee gis ngeen kee tey kee ñu yóbbu aka neexoon yàlla na fekk muy koo xam ne li yàlla bëgg ci loolu rek la nekkoon bi mu nekkee mu ngi beneen monde ñun ñu ngi beneen monde monde yi bokkul de alamul dunia wa alamul arwaax bokkul fii bakkan bi mooy jiite fee waa ji jëm ruu bi mooy jiite gis ngeen kee buy wax ak ñun tey duñ dégg ñun suñuy wax ak moom du dégg moom am na ñeneen ñuy wax ak moom muy dégg ñun suñu waxantee dégg te gis nga zaaru bi fi mel nii lu jar a waajal la dee dañ koy préparé sëriñ bi danoon wax ne dee du gàcce waaye victoire la ci ku sànkul dundam kon gis ngeen tey ci wàllu xalaat ak tey li ci l'islam yor nga xam ne ab islamiste ab jullit ay xalaatam fu mu ko génne rek dañ ko war a jël dañ ko war a taataan ab jullit xam-xam war ko yitteel ba yenent bi ne ko walaw min alsinatil kuffar yaa ko moom walaw min alsinatil kuffar yonent yàlla Muhammad ne ne yaa ko moom yonent bi ne ne yaa ko moom daf laa réeroon rek foo ko fekk jëlal kon loolu tamit benn la ci problème yi waaye benn la ci jafe-jafe yi bokk na ci ba tey mooy zazaatun fil aqaid allahu akbar zazaatun fil aqaid pas pasu l'islam yi tey aurie jullit yi fasal la l'islam mais leneen lañ fas xoolal tey woote yu rax l'islam yi ñaata woote la duñu wax adduna bi parce que suñu tànk sariwul waaye dañuy wax ci réew mii nuy dund ñun ak yéen loo xamante ne buñ leen ko waxee chaque jour ngeen ci teg seen i bët ci biir l'islam l'islam woote la xam ngeen mais ci biir woote l'islam dafa am ay déviation yu ci dugg yeneen woote yu ñëw ne ñoom ci l'islam lañ bokk te dañuy xeex l'islam nga gis ay woote ay nit am pas-pas bi ci ban weer lañ nekk ci weeru koor nga gis jullit boo dëkkal koor gi jot mu bañ a woor nga génn fekk ko muy togg añ yow nga ni ko asalaamaaleykum mbokk lu xew mu ne la non man du ma woor damay joxe ndogu lu tax loolu mu ne la non ñun kër gi ñu bokk ci l'islam lay askanoo mais ñoom du ñu woor ñoom dañ leen ko teggil loolu du déviation te déviation la parce que yàlla santaane wul nañ joxu ndogu yàlla dafa ne nan woor kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun borom bi dafa woote baatut nida nidaun ayuha almuminuun ya ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm kan moo woote yàlla ñan la woo ñi gëm lan la leen wax mu ne man maa leen sant ngeen koor comme ni ma ko sante woon gaa yi leen fi jiitu dafa mel ni question dafa am lu tax ya rab limaza amartana bi sawm mu ne laallakum tattaqun li ajli taqwa amartukum bi sawmi amartukum bil ibada pour ngeen ragal yàlla pour ngeen mën a def li yàlla santaane bàyyi li mu tari tere moo tax ma ne na ngeen xiifal bakkan yi pour ngeen mën a topp sama santaane bàyyi li ma tere moo tax ma sant leen ngeen xiifal seen bakkan léegi nag ci biir pas-pas yooyu nga xam ne dañoo jàdd pas-pas yooyu nga xam ne wérul soo koy lim doo fi jóge julli ci la bokk kan moo santaane julli ñaata aaya la yàlla wax ci alquran nañu julli nga dëkk ak jullit bu dul julli lu tax mu ne la non ñun duñ julli parce que dañ ñu koo teggil kan moo leen ko teggil kan yàlla yàlla moo la wax bul julli yàlla moo nu wax buñ julli fan la ñu yàlla wax buñ julli ci alquran au contraire yàlla dane am na ñuy julli safara lañ jëm lu tax parce que dañuy yàq julli fa waylun lil musallin yàlla wax ñu ci beneen aaya ne am na ñoo xam ne dañoo dugg safara ñu laaj leen lan moo tax ñu dugg safara lan lañ tont qaalu lam naku min al musallin ñun dañoo ba ñun julli fa xalafa min baadihim xalasun adau salaa wattaba'u sahwaat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taab yàlla mu ne ba yonent bi demee sahaaba yi dem taabi'iin yi dem nit ñu baax ñi dem am na ñu leen wuutu ginnaaw dañoo sànq julli yàlla nee na ñooñu bañ a julli safara laa leen jëmee te safara ku ma leen di dugal mooy ci dereti waa safara ak seen dëtt fa muy taa ci kondin yi ci biir pax yi yàlla nee na deret jooju dinaa ko naanal ñu bañ a julli léegi nag naka nga mën a amee jabar ju dul julli naka nga mën a amee jëkkër ju dul julli noo mën a amee ay doom yu dul julli noo mën a amee ay jarbaat yu dul julli noo mën a amee dëkkandoo bu dul julli noo mën a bokkee ci mbooloo mu dul julli nan nan nan nga mën a bokkee ci association boo xam ne kenn du julli kon pas pas bu yu bon yi nga xam ne dafa bokk ci l'islam te di ko yàq déviation la bokk ci beneen mooy xoolal tey am na ñuy gis yàlla dañuy gis ay xale yu góor yoo xam ne dañuy fanaane tëgg kol su bët bët set boo waxee ñu ne la grand dem maag yàlla ñoo fanaan biig gis naa ko gis naa got biig gis yàlla Aboubacar Sadiq moo ñu gën wala gënunu musul gis yàlla dafa jaamul yàlla Ousmane Ibn Affan moo nu gën wala gënunu dafa jaamul yàlla musta gis yàlla Umar ibn Khattab musul gis yàlla Ali ibn Abi Talib musul gis yàlla bañ ko ne ndax xam nga yàlla mu ne waaw noo ko xamee mu ne bi nuuri qalbi ci sama leeri xol mais dangay ku ne man dama gis yàlla jahran jahran ku li la ay bët nag sunu benn dëkkandoo doomam da dafa dafa xëy rek ne ko gis naa yàlla papa mu ne loo ko wax mu ne non waxuma ko dara nag père mu ne tey ma tey rek ma nangam sa ndey yow doomi nangam ji nga xam ne man premier la guddeeg bëccëg ci problème laa ne nga gis yàlla waxoo ko samay problème tey rek rek mu fàq yat dóor ko ba yat bi damm nga ne boo léegi boo ko gisee di nga ko wax samay problème est ce que wax ko dëgg yooyu ay caaxaan la mani mani yooyu ay caaxaan la laa wax déviation yu bare bari dañoo dugg ci diine ci munoo ko lim munoo ko jeexal da ngay dégg-dégg ñu ne la yont yàlla Muhammad mi nekkoon fee moo ñëw fii moo weexoon fee ñuul fii loolu kan moo ñu ko wax parce que yàlla moo nañu it dekkilaat naa Muhammad mi ngi Sénégal yàlla moo ñu ko wax ci ban saar la ko wax ci ban saar ci ban aaya ci ban surat bu fekkee fii kenn ci ñoom ku ko gëm mu ngi fii soo ñëwee par soo suñu paree nga ñëw jël micro bi nga wax ñu ci ban aaya la yàlla wax ne Muhammad moo weexoon fee ñuul fii nga ñëw nga wax ñu ko ci ban saar la nekk yàlla lu ñu wax mooy Muhammad maa ko yónni woon dee na jóge na fi maa kaana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa amul keneen ku ñëw ginnaaw yàlla nee na Muhammad moo tëj bunt yi cent vingt quatre mille yonent la woon jeex na keneen dootul ñëw ginnaaw Muhammad cent vingt quatre mille yonent keneen dootul ñëw ñun ñu bëgg ne yonent yàlla Muhammad ñëw na Sénégal san ragal yàlla nañu bàyyi caaxaani jaamu yàlla bàyyi fontu yi gis nga caaxaan yi ñu ne ku ci dee rek dem safara billahi alladi la ilaha illa huwa ku fekke weeru koor wooroo ba dee ñu laaj la lu tax nga ne man damay joxe ndogu julli jot nga bañ a julli sooy dee di dem safara nan leen ragal yàlla nekk ay julit nee naa leen julit kenn du ko nekkant dañ koy nekk dëgg original yàlla bëggul faux pur original ku nekkul original rek da lay lakk foog nga def ay minute safara góor ak jigéen nag mag ak ndaw ku xam ak ku xamul réalité yàlla ak réalité ñun du benn yàlla bi mu nammee ñun ñu nekk ay jullit def ñu yónnee ay yonent yónnee ñu téere bu tudd alquran wax ci lim ñu wax alquran nekk cent quatorze saar cent quatorze yàlla tëral ci ay atteem wax ay santaaneem daal ci digle ay tereem cent quatorze saar yi yow ab jullit nga nar a nekk ci kaw suuf ba dee xamoo ci dara dara nga ci xamul après nag ngay dunda yaakaar nga dee ñu lay dunda yaakaar waaw waaw diw kay ku baax la moo jullee diw kon ab diw am nañ ci yaakaar àjjana la jëm yonent yàlla Muhammad jullee na nit mu pare yàlla mu ne ko waajaa ngi safara Muhammad laa leen wax jullee na nit yemul ci julleeku de yemul sax ci loolu def ko sang sang ko ak yére mantoom bi mu daan sol mu jël manto bi solal waaj dem ci armée la ñu jox ko peel bi mu gas ak loxoom yu sell yi mu pare dugg ci biir pax bi ñu jox ko waaju mu dugal mu pare delloo ci suuf si bëgg a taalal yo ko ñaan yàlla ne ko boo ñaanoon juróom-ñaar fukki yoon it kii du ma ko baal mu ngi safara muhammad laa leen wax muhammad muhammad waxuma keneen de muhammad laa wax kon keneen waxi noppi koo fi yaakaar muhammad a ko gën muhammad moo def loolu yàlla mu ne ko li nga def yëpp coono kese la te ku mel ni sax maa ngi lay mettre en garde ku mel ni bu deewatee bul taxaw ci bàmmeelam naan da ngay ñaan wala da ngay jullee xam nga lu am solo mooy yow nekkal jullit nekk jullit moo am solo sahaaba bi doon wax ana la ubali hiina uqtalu musliman man su ma nekkee jullit dootuma faale dara wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee dajeg yàlla lu dul ay jullit ngeen loolu mooy wax ci bul dee dajeg yàlla dul jullit nga mais di nekkantu jullit nekkantu di font loolu xale yi naan mbasin billaay jaaykat yi da ngay dem marché mu ne la bon bi mbasin la nga ni ko lii mu ne la billaay mbasin la mbasin billaay waaye jullitu billaay jullit boo xam ne balaa ngay gëm ne jullit nga mu génne carte d'identité nga xool gis ñu bind ci Abdallah wala Fatima nga ne ko pourtant musulman nga vraiment c'est vrai de pourtant musulman la loolu jullit la nga defe ne loolu jullit la kon nan góorgóorlu pas-pas yooyu nga xam ne zaza la ci pas-pas yi nga gis ay jullit yoo xam ne ku nekk dafa am loo fas pas-pas bi ñu fas bokkul te islam benn pas-pas la yàlla mooy yàlla alquran alquran la muhammad lañ war a topp jeex na kaaba gi lañ war a jublu tisbaar ñeenti rakka la timis ñett la gee ñeenti la suba ñaar la loolu mooy pas-pasu l'islam màkk ba sow amul lu wuute lan moo tax jullit yi wuute tey lu tax jullit yi wuute lu tax parce que yàlla taxul parce que ay intérêt parce que mbooloo mi ma bokk parce que kër gi ma bokk parce que ñun parce que ñun da ngay ci loolu la ñuy dem ci loolu la ñuy dem ba nga dégg ci Sénégal da ngay gis ku yor rajo naan këru diine yi këru diine yi loolu danger la bu rëy nga te ku wax loolu rek def nga erreur bu garaaw dañoo war a wax dañoo war a wax këru diine ji mais waruñu wax këru diine yi attention de dégg leen baax li may wax olof la këru diine ji kër yi mën nañoo bëri mais diine ji benn lay nekk mais bu ñu ne këru diine yi kër yi bëri diine ji bëri kon ça veut dire que am na ci kër yoo xam ne nekkuñ ci diine am na ci kër yoo xam ne nekkuñ ci diine parce que yàlla lan la wax inna diin inda allah al islam yàlla nee na diine ci man benn kese la benn amul ñaar amul ñett amul ñeent benn kese la diine diine mënul bëri ay bopp ci beneen bi mooy daafan fi tarbiya allahu akbar bokk na ci problème yi gën a ngand tey ci l'islam mooy éducation islamique nit ñi amuñu yaru l'islam kee bu yar doomam ci aada la koy yar kee bu yar doomam yaru tubaab la koy yar la koy jox kee moom du sax yar moom faalawul yàlla yónni ku toll ni Muhammad Muhammad ñëw yar sahaaba yi cent vingt quatre mille sahaaba Muhammad yar leen déggoo ci ku dul kuy xëy fajar du julli sahaaba yi kan ngeen ci déggoon day biddanti wax leen ma kan la wax leen ma benn sahaaba bu doon biddanti wax leen ma ko wax leen ma benn sahaaba bu doon organiser soirée di fecc da organiser collège arabe wax leen ma kan la cent vingt quatre mille la ñu woon góor ak jigéen ci ginnaaw yonent yàlla Muhammad wax leen ma kan la wax leen ma ci kan ci ñoom moo nekkoon mbër kan ci ñoom moo nekkoon musicien kan ci ñoom moo doon kiris karas tubayam kan ci ñoom moo doon bënn noppam kan ci jigéen ñi moo doon def yaramu neen kan ci ñoom wax leen ma kenn fokk ñu yar sunu doom yi yarul islaam yarul islaam yàlla dafa jox yonent yàlla Muhammad programme mu ne ko nit ñi boo buggee ñu baax programme bi ma indi moo leen di baaxal nit ñi yaa di jël loolu taxañ daay dugal sunuy suufu armoire daafan fi tarbiya tey boo yar sa sa waa kër sax ci l'islam nga gis problème maa ngi koy wax léegi-léegi benn mbokk benn fajar dama ànd ak samay doom jàkk mooy avant ñuy woor xam nga ba avant ñuy woor moom ilimaan ñaari pa ñetti gana benn booy jàkka joo dem ilimaan ñaari pa ñaari gana benn booy jàkka joo léegi nii nag am na ñuy jaamu xëdd ñuy jaamu xëdd yëpp heure bi da nga leen di gis ci jàkka yi jàkka ji day fees ba ci biti parce que xëdd la ñuy jaamu bu koor gi jeexee xam nga xëdd amatul dootoo leen gis jàkka fajar su ko defee sa julli yooyu nga julli woon ci koor gi yëpp malaaka bi taxañ ko dugal ko suuf njagee naay ne la lii xëdd bi xëdd bi moo taxoon ngay ñëw ci jàkka bi xëdd xëdd amatul xëdd nga xaar ba xëdd ñëwaat jullit boo xam ne bala muy dem jàkk xëdd jot wala samedi jot wala dimanche boo xam ne takkan fa beñeen fa bisaab mu doog a dem jàkk loolu jullit la loolu jullit la lu ko waral mooy da fi tarbiya jullit boo xam ne ay nelawam allahu akbar xoolal stade musuma gis stade rapporteur bi yor micro naan non match baa ngi waaj a commencé ñëw leen musuma ko gis lamb ji musuma gis rapporteur yi ñoom bay péex ak ñooñu naan ñëw leen bëre baa ngi waaj musuma ko gis jàkka ji nag dañuy tabax jàkka ji gis ngeen sooroor bi dem leen ngeen laaj ilimaan lu tax sooroor bi kawe mu ne la dañu bëgg rek def ci ay haut-parleur pour bilaal bi buy nodd na ko dëkk bi yëpp dégg ba pare ñu jël ku gën a mën a yuuxu ci koñ bi def ko bilaal su ñëwee nit utal ko micro boo xam ne day naaw ba fu nekk du tere ndeysaan te kenn du ñëw mu ñëw naan assalaatu xayrun min annawm gaa yi naan ko laa annawm xayrun min assalaa laa ya cheikh annawm xayrun min assalaa mu naan leen laa assalaatu xayrun min annawm julli moo gën nelaw gaa yi nekk ci biir mbàjj yi naan ko non non nelaw moo gën julli nga gis benn borom kër bu bëgg a jóg jabar ji ne ko nii nijaay mu daal di tëddaat waaye ku sa soxna tere dem jàkka fajar bisa ngi ñëw soxna si dina yuuxu ba ñëpp ñëw mën a jël leen yóbbu jàkka ja da ngeen wax bi dégg leen ko de xaaral ma jaaraat ku sa soxna dana tere dem jàkka fajar bisa ngi ñëw soxna si dana yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkka ja fajar jël leen yóbbu doyal naa ci pare naa ci yóbbu leen ko su boobaa nag ñu yóbbu la ak gàcce ndax koo xam ne juróomi ponkal ñoo ko yóbbu jàkka juróom kenn ci kanam kenn ci ginnaaw ah ñett ñi ci el bi ñu ne la zaj def ci kees bi yóbbu jàkka ji yaa yóbbu sa bopp su ko defee jàkk ñi ne leen ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifin bi nga fii ñëw ragaloo yàlla bi nga fii ñëw ragaloo yàlla indi wa sa bopp indi wa sa bopp ragaloo yàlla dañ la fee indi sa ñëw neexuma jàkka ji di la wax loolu indi wa sa bopp dañ laa indi ku yebo dem balaa balaa ñu lay yóbbu neex naqari da nga dem jàkka neex naqari yéen a ngi may dégg su leen neexee bu leen naqaree di ngeen dem jàkk na leer ku mu neex ku mu naqari di nga dem jàkk da ngay dem ngay dund mbaa nga dee ñu yóbbu la terminé affaire yi amul sentiment ñu stade su wootee day fees dal une heure suba bu gars yi di bëri stade bi ban heure lay fees sept heures ci suba lay stade bi di fees sept heures jàkka jaa ngi ni du fees géej gi day fees soirée yi day fees góor ak jigéen jàkka du fees lu tax loolu te fi mu nekk nii boo dajoon ak benn waaye nga ne ko foo jëm mu ne stade nga ne ko yàlla na nga fa dee mu ngi la yé xoolal suba beneen yoon bu la gisee ngay ñëw day teggi mbedd waa ji bëggoo dee stade nga fay dem fu nga bëggu ta dee nga fay dem soo ne woon waa ji foo jëm mu ne jàkka mais waaw waaw yàlla na nga fa dee waay mu ne waay waay amin waay waay waay jërëjëf waay tufli ko fii tufli ko fii waaw lu tax fee biñ la ñaanalee ki la ko ñaanal nuyoo too ko te nga fay dem guddeeg bëccëg fi nga bëgg a dee doo fa dem lii mooy sunu dund lii mooy problème lii mooy ay gàllankoor yu tax l'islam mënta avancé lii daafu fi tarbiya benn question ngi nii mbokk yi dama bëgg na ma ñëpp a tontandoo dama am benn doom xale bi di def entrée en sixième ak COP xëy fajar ma dugal ko sama oto yóbbu ko ba ci école bi sept heures avant kenn di ñëw ma ni ko classe baa ngi nii may ko mille francs ne ko après nga ndékki bi mi di jotee xale bi wàcc ne ma père dama tardé ñetti matière quoi ma ne ko mais pourquoi mu ne ma gis nga ban bi nga ma bàyyi woon bon dama fa nelaw quoi bi nga demee da ngaa góor rek ma saaraan quoi daal di nelaw doom jooju ku ko jur fii noo koy def dama wax ngeen waxal yàlla kenn ku nekk laa wax fi nga toog dama wax ñu waxal yàlla dama wax ñu waxal yàlla doom jooju ku ko jur noo koy def ah jërëjëf ren di am na ku ne xolal ren di gis nga wallahi wax na dëgg doom jooju ku ko jur ci ñun boo ko ren di it yaramam dina tàng wala bu fekkee kii def kii def defem la nag mu ñëw ne la papa wax dëgg yàlla am na matière yoo xam ne defuma ko pourquoi mu ne non dama dama dama dama biddanti xam nga ko grand loo koy def da nga koy jéppi xam ne kii du tekki nga koy génn si kër bu dee kuy def bac bu dee kuy def bac da nga koy baax très bien léegi nag ku sa doom tardé ñaari rakka fajar loo koy def ah ah yéen kee ngeen ne da ngeen koy rendi kii da nga koy ba kii da nga koy jéppi kii da nga koy génn kër gi ñaari rakka fajar la sa doom tardé jàkka loo ko def ndeysaan xam nga loolu olaaf araab yi naan faaqidu shay laa yuti ku amul doo maye soo déggee waajaa ngi maye dafa am ku amul doo maye xam nga lu tax xale boobu tardé jàkka fajar kenn du ko def dara xam nga lu tax kenn du ko def dara c'est parce que bàyyi jéeg yaay yi sax dañuy tardé jàkka fajar papa ji du yeewu fajar di dem jàkk yaay bi yeewu julli ñooñu bu seen doom bi dënkee jaadu naa isa kaana rabbul bayti bi duf si daari bu dee baay ji sabab bi moo ko jiitee yaay ji tàcc doom ji nu mu war def olof yee ko waxaa lu juddoo ci ki ci kàgg bu naawul waaw ku juddoo ci biddanti màgg ci biddanti barki démb dama war a ndogu benn waaye woo ma téléphone kar Cees dama dama la soxla c'est urgent ma ne ko mais Dakar laa ne mu ne ma foo nekk tey jii doo tëdd sa gisuñ fan nga dëkk ma tegtal ko waa ji taxi la loué Thiès Géejawaay xam nga ban problème la am dafa am jabar ju dul julli démb xam nga fu ma woowee Tamba xam nga waa ji lu may doyee dama war a takk jabar sama yaay nee na bu ma wàññul sama sikkim bi du ma takk jabar léegi lan laay def ñàkk fulla sikkim dafa am relation ak soxna dan lan la lan mooy relation bi ma ne ko mais pourquoi mais non c'est que sunu famille ay tubaab lañ quoi dañu bëgg ñi ñëw ci mariage bi moom buñ gis sama sikkim bi quoi tufu non ñun dañ ñun duñ dem fenn dañuy soxla suñu bopp duñ dem parce que lu tax amuñu yaru l'islam yaruñu sunu doom yi l'islam mbokk yi foog ñu yar nit ñi diini nañu yar doom yi diine dëkk bi nañ leen yar ci diine diine dong la ñuy yar dëkk bi dëkk bi baax sans diine nii rek lay mel nii rek nii li ngeen di gis nii nii diine mooy baaxal nit koo gis mu baax rek dafa am diine jeex na koo gis mu bon mu yées amul diine loolu kese mooy wax ji xam ngeen kañam kaña xam ngeen ko sénégalais la yéen ñi toog fii kenn gënu ci nekk kaña sénégalais lan moo tax du génn guddi du génn bëccëg du du gis de jikko ji moo baaxul fu mu génn bëccëg ñu rey ko amul diine lu mu gis yàq nit ñi nag dañoo yor jikko kaña luñ gis yàq wallahi dama nga indi benn télécentre vert def ko fii télécentre nga def lépp vert nga def ko fii nga dem ba déwén nga ñëwaat xool ndax di nga ko fekk dégg leen li ma wax de ma ni d'abord nga def benn télécentre vert nga ñëw teg ko fii ci diggu bayaal bi nit ñi ñëw di woote ah nga xam ne amul gardien da nga ñëw rek dugal composé nga def ko fi ren ji ci koor gi ba déwén nga ñëwaat doo ko fekk ah mu ne jërëjëf lu tax ñu koy teg lu mu leen def parce que nit ñi ñoo civilisé wul nit ñi la seen jikko yi baaxul dëkk baa ngi nii gars yi xoolal li gën a dee mooy étudiants yi laa wax nga xam ne ñoom ñoo yor xam-xam bi ñoo xoolal comb xam-xam yi nekk ñi raw ci dëkk bi mooy étudiants yi ñooñu bu ñu meree lu ñuy def dañuy lakk Dakar dem dikk dañ koy jàpp di ko tojat di ko lakk te ñoom ñooy borom xam-xam yi nee nañ de ñoom ñooy borom xam-xam yi wala ñoom duñu borom xam-xam yi ñoom ñoo raw ci dëkk bi bu fekkee ñi am xam-xam ñoo mel noonu xam nga tax loolu parce que amuñu diine mën ngeen gis ay taalibe yu tëj kaar ay taalibe yu jàng ci daara laa yu tëj kaar mën ngeen ko gis tontu leen de mën ngeen gis ni ku génn kër Cheikh Ahmad Bamba di tëj kaar ku génn kër El Hadj Malick ku génn kër El Hadj Omar ah ku génn université rek mooy tëj kaar mais ku génn ci école daara yi doo tëj kaar lu tax parce que diine parce que yar moo tax parce que yar moo tax il faut ñu yar nit ñi diine diine ji kenn du ko bàyyi ginnaaw benn waay nee na nit ñi tey fuñ jàpp diine mi ngi mel ne benn waay bu am 4-4 biñ ko mayee 4-4 bu bees tàq wala ñu may ko Hummer bu bees tàq mu koy roode daal di jël soxna yi soxna seeg doom yi ne ko yóbbaale nu yóbbaale nu papa foo jëm mu ne Tamba mu ne noo yóbbaale nu ndax ñu ñoom oto bi mu ne yëg leen dugal leen ci biir ñu daw tuuti dajeeg benn waay bu ko suñu ne leen bonjour ñu ne ko bonjour fu ngeen jëm ñu ne ko ci kanam mu ne yóbbaale leen ma chauffeur bi ne ko yow la kan mu ne ko man la man la man la chauffeur mu ne soxna si ci ginnaaw chauffeur kay ci kanam lu tax parce que chauffeur la joxe woon bi muy mayee soxna si chauffeur moo ëpp doole jabar ji ne jabar ji ci ginnaaw dama ci xale yi chauffeur kay ci sama wet ñu dem yeneen téeméeri mètre beneen waayu stoppé ko yaay kan mu ne man la euro mu ne chefa dégage ci ginnaaw ñu dem téeméeri met keneen estaba yaay kan man la dollar euro baal ma waay fekk xale yi ci ginnaaw xanaa tukki boobu neex na de tukki booy tukki ànd ak say doom ànd ak sa jabar ànd ak chefa ànd ak euro ànd ak dollar tukki boobu neex na wala neexul yor oto boo xam ne day lem yoon wi da koy lem tukki boobu neex na wala neexul wallahi neex na bu ñu waxee dëgg ñu dem téeméeri mètre dajeeg benn waay mu ngi yor kaamil loxo ndeyjoor mu ngi yor sijaada loxo càmmoñ mu ne leen asalaamu aleykum aleykum salaam ngeen mu yóbbaale yow la kan mu ne man la diine gaa yi ne ko diine diine diine oto bi fees na diine mu ne ah ñu ne non oto bi fees na mu ne du ngeen bàyyi ma yëg ci kaw ñu ne non kon gendarme yi dañuy jàpp bàyyi leen ma ma dugg ci porte bagage bi ñu ne non bagage yëpp a nekk ñu ne xam nga lu ñuy def diine ne ah da ngay toog après bu ñu demee ba def demi tour ñu yóbbaale la xoolal ñëpp nangu nañ mu dem ba mu def diine ñu dem téeméeri mètre benn dañ dëpp daal leen di échauffé xam ngeen dañ dëpp xam nga leen mooy ponkal moo xam ne ci kaw ak ci suuf lépp a tolloo boo ko jamee sa baaraam bi yow yaay reculer mais du reculer ab ponkal ab bombardier mbaa ab Yékini daa leen di asobe bu ngeen ma yóbbaale ñu naan ah yow la kan mu ne man de yóbbaale ma dem yóbbaalewul ma dem yow la kan mu ne man la malakal mawti te sax yéen laa jël si yéen ñii ci oto bi yéen ñëpp ñu ne lan moo ñuy musal mu ne diine rek gars yi ne laa ilaa xaar ñu def demi tour mooy hatta ida jaa ahaduhumul mawt lan la ñuy wax fa yaqulu rabbi lawla axartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun xaar may ñu di dimbal ñu ne xaaral tuuti rek ñu def demi tour jëli diine mu ne non amul retour les gars yooyu dem nañ sans diine te diine taxoon yàlla bind leen léegi dem nañ àllaaxira sans diine ku dem alaxira sans diine foo jëm nga dem alaxira sans éducation islamique xamoo dara ci l'islam amoo yarul l'islam xamoo nooy solo xamoo nooy waxee xamoo nooy lekkee xamoo nooy te islam bi bàyyiwul dara léegi léegi laa leen ko fi wax bi fi bi fi mbokk mi di déconné ngeen di ree man leen yonent daf ne boo gisee ku wàññeeku ku mel nii jàngal ñaan bi islam amul lu mu bàyyi lépp la diine ji jàngale mais lan moo tax jullit yi mel nii lan moo tax nun nu mel nii loolu mooy question bi xamuloo ne yëf yi mat sëkk maanaam borom kër gi dafay ni dund bi lépp mat te xale yi xiif guddeeg bëccëg te kër gi dara manqué wu fi te nag kër gi ñuy xiif guddeeg bëccëg loolu mooy wax ji diine ji dafa complet bàyyiwul dara jullit yi dëng oh laa ilaha illa allah ñoom mu dus lu doy waar beneen tomb bi mooy xawaa fi ruux mooy ruu gu dee suñu ruu moom yaram yi yaram yi rek kay dundaa mais ruu moom te xam ngeen ne nit ñaar moo ko nit ñaar moo ko moo ko composé ñaar ñaar gis ngeen fiilu courant boo gis loo ci gis ñaata fiil bépp fiilu courant boo gis ñaata weñ ñoo ci nekk ñaar bu bleu ak bu xonq nit ñaar yooyu la ruux ak yaram ruux bi jaamu yàlla moo koy dundal yaram bi lekk ak naan moo koy dundal léegi nag ñun ndeysaan dañoo bàyyi ruux gi di dundal yaram yi rek koo xool ci ñun mu ngi tàkk mu ngi nes nes dañuy diw ba diw sikki mi saña ko ba mu liis reeram yépp ay tàkk mboolem façon yére mboolem façon saabu bu ñuy sangoo mboolem façon xetu parfum waaye ruux gi nag ruux gi la ngaa fàtte ne ruux gi dafa war a dund sa ruu lan moo koy dundal du lekk du naan de jaamu yàlla mooy dundal ruu léegi nag ñun ñu topp rek benn wàll di dem rek bàyyi ruu moo tax ñuy dund sans sans islam léegi dañuy dund sans l'islam ñaar moo la war a dundal yow benn bi nga toppatoo kon benn bi dee na kenn ci ñun fii ruwam dundul parce que ruu li koy dundal mooy jaamu yàlla su guddee bu nit ñi tëddee nga jóg di naafila su nit ñi jëw yow nga téye salaamiñ bu nit ñi fen yow nga yor sa kurus di sikar di tudd yàlla waaw loolu mooy dundal jullit loolu mooy tax ëllëg nga am leer nga am leer loolu yàlla doon wax sahaaba yi fii maahum fii wujuhihim min asari sujud jullit yi bu njëkk ba boo leen gisee doo leen laajte doo laaj ndax kii jullit la wala kii du jullit déedéet da ngay xool rek xam ne kii jullit la mais tey sam nga laaj noo tudd su waxee ba pare ngeen ko waatal mu waat ngeen ko génneel sa carte d'identité ba léegi gëmaguma ko noo tudd Mouhamad non yow tuddoo Mouhamad wallahi alazim Mouhamad laa tudd waat na xam nga nga ne ko am sa carte d'identité mu doog a génne nga gis Mouhamad fils de Abdoulaye benn pour cent dëgg la de loolu loolu loolu du dem mbokk yi nañu yëpp ne doomu aadama yàlla tabaraka wa taala dafa wax ne bi may bind nit dama ko bind ci ñaar ñaar yëpp nag ñu sàkk ci moom ñaar yëpp war a équilibré war a dund yaram bi dafa war a dund i'mal li dunyaaka ka annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gadan aaya bi ne wala tansa nasibaka min ad-dunya jaamul yàlla ba mel ne da ngay dee tey jii ci guddi waaye liggéeyul ba mel ne doo dee fuñ la gis yaa ngi takk war a liggéey mais fuñ la gis yaa ngi jaamu yàlla mais ñun xoret fa guddi fa bëccëg fuural simb xumbal rapajo soirée jëngal pristaras xóotal xàppati xeexal dangal dañuy dangal ba mu dang dang leen ba mu dang yàlla bisa ngi ñëw yàlla dina dangal ba mu dang dang ba mu dang ba gën a dang gën a seer dangal leen rek allahu akbar xoola ab juy bu génne ay awraam ci biti lii nag mu naan dama koy dangal looy dangal say awra nga defe ne kooku dina dud joom du baax abadan yàlla ñi muy envoyé ñuy defar àdduna kuy dangal du leen jur kuy cris karas du béyam doo leen jur ah abadan yonent yi yonent yi kan ngeen ci dégg papaam da doon cris karas yaayam da doon dangal xoolal yonent yi ay modèle la ñaata leen a tànn ñoom ñëpp teg leen ci kanamu Muhammad ne yonent yàlla Muhammad da ngaa bëgg a baax ulaika alladina hada allah wa bi hudahum iqtadi ñii laa baaxal soo bëggee baax jaaral fi ñuy baax mbokk yi ndax am na fi ku bëgg a baax benn programme dong moo lay baaxal mooy programme bi baaxaloon yonent yàlla Muhammad programme boobu moo baaxaloon Ibrahim moo baaxaloon Moussa moo baaxaloon Isa programme boobu rek amul beneen beneen tomb bi mooy ixtilaaf fi sufuuf ixtilaaf fi sufuuf xoola sunu sàppe julli ñi mënuñu bokk benn sàppe abadan julli ñi mënuñu nekk benn ittafaqa al muslimuna alla yattafiqu ittafaqna alla nattafiq est-ce que dégg ngeen wax bi gars yi dem réunion bi ñuy dem réunion ñoom ñu daal di diisoo waaw dañuy dem réunion nag ñun quinze personnes lañ ñu ne waaw ñu ne buñ demee ba yegg nag na ngeen fexe rek ba buñ déggoo ci mbooloo mi buñ déggoo de ñu ne waaw ku nekk signé ñu ñëw toog loolu jàmm la ah ba ci weer wii rek ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti korite la ñii dañoo woor mardi ñii woor ñii woor mercredi ñii woor jeudi ba ci koor gi rek kañ la ñuy nekk benn kañ kañ la ñuy defandoo benn di julleendoo di woorandoo di wooreendoo gëm suñu diine lépp nekk benn kañ kañ la ñuy gëm ne yàlla mooy suñu borom muhammad mooy suñu roykaay alquran mooy suñu téere kaaba gi mooy suñu kaaba fa lañ war a julli bu ñuy jublu bu ñuy julli kañ lañ ko war kañ ah saa waxee yàlla sax nga dégg am keneen ko waxlee nga ni mo muhammad nga dégg ku leen ñun tamit suñu waaji la nga ne alquran ñu ne la non alquran rakkal la dégg naa benn waay bu aji woon màkk loolu ñu ngi ma ko wax démb démb astaghfirullah barki démb ci fajar bi ma jullee ba pare ànd ak benn waay ñuy ñibbi di dellu ci kër ya ñuy waxtaan la ma nettali lii may wax nii nee na seen benn mbokk daa demoon màkk comme ñoom am nañu alal mu ñëw dajale famille bi ne li ma leen di yëgal daal mooy na ngeen fexe ngeen aji benn waay ci biir mbooloo mi ne ko yow daal da ñu yab ñun dinañ fi bàyyi jàkk diw ji di dem aji loolu nag ñoo yàpp et puis à partir de tey bu ñu woowaat daal di tas mbooloo mi parce que dégg ngeen li ma wax ñun dinañ fi bàyyi jàkk diw ji di aji bu ñu demee alaaxira lu ñuy wax diw ñun diw doy nañu aji wuñ tey aji wuñu ëllëg et puis bu fekkee li ngay woote bu nu woote loolu diine la ah est-ce que loolu diine la ixtilaaf fi sufuufi muslimin alamul islami tey jullit ñi ci kaw suuf mat nañ un milliard mais mënuñu nekk benn benn misaal bu ndaw laay joxe mbokk yi yéen ñi may dégg dama leen di laaj di leen laaj yi ngir yàlla kenn ci yéen bu yoroon cinq mille war ko jox ki jiite catholique yi ci Sénégal xam na ku mu koy jox wala xamu ko xam na ko wala xamu ko xam na ko ki jiite catholique yi xam ngeen ko de ci Sénégal xam ngeen ko tey da ngay dem ba këram rek daan ndeysaan ne ko mbokk mi am ndax xam nga ko parce que moom ñëpp leer na soo yoroon million bu ko jox ki jiite jullit ñi Sénégal koo koy jox soo ne dama koy jox sëñ Mansour ñu ne la yow xanaa dama dof sëñ diw nag ah ko xaar ma dem yof ñu ne ah sëñ Ndiassane nag nga ne ah kon xaar ma dem ñu ne la ah sëñ Cheikha nag sëñ Guédiawaye nag sëñ Colobane nag sëñ àngal mus nag te bi nga yoree cinq mille de bi nga yoree cinq mille de xam nga ki nga koy jox fële tey soo yoroon deux milliards war ko jox ki jiite catholique yi ci adduna bi am nga ko koy jox wala xamoo amoo ko da ngay dem ba Rome rek daal di fëgg bunt bi ñëw bi nga ni pape bi laa soxla mu daal di génn nga ni ko am soo yoroon cinq milliards war ko jox ki jiite jullit ñi ci adduna bi koo koy jox lii mooy problème islam problème bu rëy te xoolal l'islam bi yonent bi dund yonent bi moo ko jiite woon yonent bi génn àdduna suula guñ ko de wallahi yonent baa ngi ci morgue bi mu ci morgue bi denc ko de waxaguñ sang ko waxaguñ sang ko waxaguñ jullee ko waxaguñ suul ko lu dul fal nañ ko ko war a remplacer parce que l'islam mënul toog sans njiit ñu fal Aboubacar mu remplacer yonent bi ñu doog a jublu ci suul yonent bi Aboubacar génn àdduna bi mu nekkee ci sukuraat deewagul de mu ngi ci sukuraat la woo jullit ñuy toog mu woo Omar ne gars yi am naa yaakaar ci kii balaa may dee moo tax ma leen koy proposé gars yi naan ko lu xew mu ne xam naa ne damay dee su ma dee kii doy na ma de xoolal Aboubacar dee Omar Omar remplacé ko Omar dee Ousmane remplacé ko Ousmane dee Ali Ali remplacé ko ñun tey amuñu ku jiite l'islam lii mooy wax ku nekk rek yaa jiite sa kër lu la neex nga def waaw bu soxna si xëyee ne suba dañuy woor bu góor ki ne ko woor ku si woor dee waaw doom yi daal di divisé wu waaw kon xale yi ñu may mag ñi ñu toog loolu rek mooy wax bi bu fekkee chaise yi dafa jeex xale yi ñooy jaamu yàlla rek daal di jox mag ñi chaise yi daal di toog ci suuf loolu mooy diine loolu rek mooy diine gis nga loolu la ñu yare woon boo duggee kaar ndeysaan nga gis mag ñi taxaw nga daal di jóg toog mais tey da ngay gis ku dugg benn booy bu dugg de bu ndaw aju aju xool géej tey booy naan man bu ma duggee géej laay xool waaye benn paa ñëw di jéem a bëgg ma may ko ñëw sama wet nag di ma jéem a tiim tiim lu fële laa xool xoolal ndeysaan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu mooy suñu problème ñun ñëpp mu ngi nii te lan la ñu yare woon diine mooy foo gis mag ci oto foo gis mag boo koy nuyu ñaari loxo nga koy jox waaw ne ko asalaamaaleykum fi mu say daal bu dee jigéen nga doo ko jox loxo da ngay sukk loolu lañ loolu lañ jàngoon mais tey da ngay dégg ku naan man de damaa aju wala nga ne xale bu jigéen mu ne waaw yow suma fiso bi laa dóor laa wax jaar ci wetu paay ñoom ñoom ñu may xool mooy suñu problème yal nañu yàlla yërëm yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu li mooy dëgg ñu topp mbokk yi pour ci tënk te xam ngeen ne yii ñu doon wax nii jafe-jafe yi ak défi yi ñu doon wax daanaka ad daaxili rek la ñuy wax ad daaxili rek la ñuy wax yi nekk ci biir bu dee yi nekkoon ci biti mooy noonu yàlla yi ragal gi ñu ragal lislaam al xawfu min al lislaam noonu yàlla yi tey boo waxee rek ñu jël islaam solal ko benn mbubb maa ngi wax ak léegi Sëriñ Bàccili mu may wax gan gu mu amoon nekk professeur ah bu mag a mag a mag jóge France ñëw këram bi muy wax ak moom ci l'islam pour convaincre ko lan la kooku wax man dama yaakaar na l'islam jullit yi ay terroriste lañ gis nga loolu rek soo ne jullit rek ñu ne terroriste la adduna bi yëpp tey la la ñuy xoolee jullit ñëpp a ragal l'islam loolu nag jullit ñi ñoo ko war a dindi xam ne l'islam l'islam nan la tudd mooy jàmm bañ nañ ko ba booy nii da nga naan ko assalaamu aleykum yàlla nga am jàmm huwa sammaakum muslimun ñun yàlla daf ñu yónni ñu war a tasaare jàmm jooju laa tadxulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahaabu ala adullukum ala adullukum bi shay'in ida faaltumuhu tahaababtum maa huwa ya rasulallah mu ne afsu salaama baynakum du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a gëm du ngeen gëm yàlla lu dul da ngeen a bëggante kaay leen ma wax leen benn mbir boo xam ne su ngeen ko waxee bëggante ñu ne yonent loolu mooy lan mu ne dee leen tasaare jàmm tasaare leen jàmm foo gis sa mbokk julit ne ko assalaamu aleykum waxuma salaalaykum de waxuma saaleykum de waxuma loolu de waxuma saamaaleykum de gis julit naan ko yàlla na nga dee waxuma loolu de assaam al mawt yahudi ñoo doon fekk yonent bi toog ñu koy bërëxal loolu xale yi naan bërëxal naan ko yal na nga dee mu ne leen aw yow it su ko defee Aïcha xaacu xataraayu yonent bi ne ko Aïcha dalal nit ku baax du mel nii mu ne déggoo li ñu la wax mais dégg naa ko dégg naa ko de mais déggoo li ma leen tontu te man la yàlla di nangul ñoom yàlla du leen nangul man la yàlla di nangul ñoom yàlla du leen nangul kon am na anam anamin bu ñuy dégg ci l'islam gaa yi ragal l'islam ragal diine ji loolu moo tax kuy solu ci ñun sax tey doo solo solu l'islam tey boo doon tukki ci avion yi dugg ci yenn aéroport yi yenn sol yi doo ko sol soo ko solee rek doo yëg yenn agence yi jaay bie sax soo solo yenn solu yi duñ la jël yenn yenn sol yi sax boo ko solee boo ñëwee di ub liggéey doo liggéey doo ko liggéey jamais lu ko waral parce que dañu jàpp ne yow yéen baaxuleen yéen da ngeen di yàq dundu doomu aadama yi loolu lu ko waral mooy ñàkk digg digg bu rafet ci lislaam beneen bi mooy sadaamul xadaraat xadara mooy civilisation yi mbëkkante bi ñu mbëkkante ñëpp am civilisation islam dafa am waxuma ne l'islam sax mais caddo yi sax dañoo am américains yi dañoo am waa Europe dañoo am ñu nekk aske ak seen civilisation noonu civilisation yi di duggante di mbëkkante ñoom dañuy ragal civilisation l'islam parce que l'islam dafa rafet parce que l'islam cuubug yàlla la sibghatallah fu mu dem def koy changé islam ku mu dugg rek changé nit ñi benn benn benn cheikh bu tudd Yunus benn thème de formation bu mu ñu doon defal ci waa tabliq la bokk mu ne ñoom dañoo jóge Tunisie ci ay at yu yàgg dem France biñ demee yàlla dimbali leen ñu gis sunna France dana ñu gis diine France donte ne ay jullit lañu woon bi ñuy jógee Tunisie mais jullitu billaay jullitu billaay mu ne ñu dem ba France gis ko diine dëgg bi ñu commencé di ko dund di jaar ci mbedd yi ndeysaan di ko jox nit ñi mu ne ne benn bis ñu fekk benn tubaab bu màndi ba dem àll ba ci tubéyam tubaab de bu màndi ba mënatul bouger yàq tubéyam ñu daal di koy jël yóbbu ko ci jàkk ci sàng ko ba mu set solal ko yére l'islam ba pare nag indi ko ci jàkka ji ci benn ruq daal koy bàyyi foofu mu nelaw yëgul ne sax sang nañ ko xamul ne futti nañ ko xamul ne fóot nañ ay yëram ba mu set weer ko ndax mandi waa ji daa ximili ko mandi bi rees rek mu xool boppam gis ci jàkka la nekk xamul sax fu mu nekk mu xool gis yére yi mu sol mu daan ne gars yi ana sama yére ñu ne ko mu ngi ni ñu fóot mais lu ci nekkoon gars yi ne ko da nga koo yàqoon mu ne mu ne gars yi lii ngeen ma defal lépp lan laay fay génne ay sagama lu may fay gars yi ne ko ñun yàlla moo nuy fay mu ne lii ngeen ma defal yëpp dafa am yéen keneen ku leen di fay ñu ne waaw mu ne kan mu ne yàlla mu ne yàlla moom pour ma xam ko lan laay def gars yi ne ko da ngay ñëw ànd ci ñun bokk ci suñu diina ji leen nga xam yàlla xam ngeen waajooju fu mujj moo gën a ngand ci musulman France tey xoolal fi ko gars yi jëlee xoolal tey waa ji fi mu toll beneen bi benn cheikh la boo xam ne dafa koy seetaan ci benn chaîne bu tudd Arraaya muy nettali benn histoire bu garaaw ne dafa am benn benn waay boo xam ne Ang Ang Angleterre la nekk waa ji ku ñuul la nee na waa ji may na yàlla ci ay waxtoom trois heures de temps saa yu wàccee trois heures de temps yoo xam ne du dem ci jabaram du dem ci doomam du dem ci ay xaritam du ko dem fi muy liggéeyee du ko toog ci télé du ko toog ci grand place du ko jox sport yàlla la koy jox nan la ko joxee yàlla mooy ay téere lay yenu ba bopp bi fees mu yenu mbagg ndeyjoor yenu mbagg càmmoñ ku mu dajal rek ne la religion vérité diinul xaq xuz haza diinul xaq ku mu dajal rek ne la diine dëgg ngi ni jëlal ay bouquin lay maye mbedd mi su la neexee bu la naqaree da ngay jël du daj ak mbedd mi ku jëlul du daj du jaar ci mbedd moo xam ne kër gum dul dugg atelier lu mu romb place ñu toog day ñëw rek ne leen diine dëgg ngi nii jox leen trois heures de temps benn bis mu daj ak benn waay ne ko diinil xaq waa jaari jël kaamil bi sànni ci mbalit faalewul waa ji mu dem yoonam moom bu la joxee pare na ci da nga koo da nga cee saw da nga cee dem àll ba da nga koo lakk da nga koo dugal ci mbalit yoonu na ko ci en tout cas jox na la dem na waa ji mu jox waa ji jël kaamil bi rek ñëw ba ci mbalit mi rek dugal dem ñibbi këram nag tëdd mënu ta nelaw xelam naan ko yow daal vraiment amoo conscience bu leer yow nga dajeeg benn waay mu ne la diine dëgg rek nga jël téere bi dugal ci mbalit bi mais mu nga woon indi téere bi boo ko soxlawul sax nga lire ko xool boog lu ci nekk yow daal doo intellectuel yow daal vraiment yow daal mënu yow daal amoo équilibre yow daal normaloo quoi xel bi di ko wax loolu yow normaloo yow nite woo waa ji yeewu ci guddi gi rek daw song poubelle mbalit bi ne ko yóbbu nañ ko bu yàgg tuuri oto bi yóbbu na ko xam nga waa ji mu def dafa taxaw foofu di xaar waa ji pour bët set ñëw pour waa ji jaaraat fa jox ko téere mu taxaw foofu ba fajar jot waa ji ñëwul mu jël otoom liggéeyi wàcc ñëw taxawaat waa ji ñëwul mu dem ñibbi ci suba si mu xëyaat ñëw taxaw fa waa ji ñëwul ba mu am trois mois mu tourné benn suur rek dajeeg waa ji waa yaa ngay joxe diinul xaq diinul xaq diinul xaq di joxe rek mu ñëw rek taxaw ne ko as nuyu ko waa ji daal di koy fay mu ne ko xam ne nga ma waa ji ne ko déedéet mu ne da nga mos a dajeeg man ci benn place jox ma benn téere téere bi ma sànni ko mbalit mu ne après li ci sama yoon na ko man dama bëgg dama bëgg nga jox ma waa ji ne ko bis boobu téere yooyu laa amoon joxe naa ko jeex na mu ne ko non non taxawal sëñ bi doo liggéey de téere boobu foog nga delloo ma ko bu mel noonu laa bëgg bëgguma yi ngay joxe waaye ne ko man yi laa yor tey boobu ma la joxoon benn laa ci dese te pour man la mu ne ko boobu da nga ma koy jox par force wala doo continuer sa liggéey mu ne kon léegi d'accord naa mais da ngay ànd ak man ba ma pare ma jox la waa ji ne mu droit ci otoom wàcc topp waaj ba trois heures de temps yi jeex ñuy dox waa ji nee na li ma li ma yéem mooy waa ji du romb nit du romb atelier du romb place bu ñuy liggéey du romb kër du romb sax ku taxaw ci arekaar loolu dana leen a jàpp téere bi jox la nee na ba trois heures de temps yi jeex ma ànd ak moom dem këram mu ubbi armoire am jox ma téere boobu nee na ma yóbbu yóbbu téere bi ba ma demee ma liir ko téere bi convaincre ma ma tuub mu ne bi ma tuubee ma dem di ko wax sama benn xarit ndekki moom tamit dajee naag waa ji ba jaa waa ji jox ko téere mu tuub cheikh bi doon nettali histoire bi nee na ci aju màkka ci bisu arafat naaj baa ngi tàng nit ñaa ngi tàllal seen loxo yi di ñaan mu ne maa ngi gis benn waay joo xam ne nuróowul ak nit ñi yaram maanaam couleur am couleur couleur yaramam ak couleur nit ñi ak nuróowul nit ñi dañoo weex waa ji ñuul waa jaa ngi tàllal loxoom di ñaan yàlla ni mu yëkkate loxo yi nee na gis ma kenn ci mbooloo mi ku ko def nee na sama xel nag ma bàyyi ma def ci moom attention su ma xoolee su ma waxtaanee ak ñi ma nekkal ba ci yàgg ma daal di sànniwaat waa ji bët waa ji arrièreul xeful ni mu defoon rek la def mu ngi sëngamtal bopp bi mu ngi yëkkati yàlla ay loxoom nee na ba ngoon jot ba ngoon jot waa ji noonu rek la taxawee ci arafaat ba ngoon jot nee na ba ñu ñaan ba pare ba nit ñi tasaaroo rek mu ne ma profité ma daw song waa ji nuyu ko ne ko yow ban xeet nga bokk mu ne ko anglais laa ne ko foo jóge mu ne ko Angleterre mu ne dama dégg foofu am na fa benn waay boo xam ne day jaar ci day jaar ci mbedd yi rek di di joxe ay téere waa ji ne ko nu mu tudd mu ne ko Abdul Hamid mu ne ku la ko wax mu daal di nettali histoire bi kii mu joxoon téere bi mu sànni ko ci ci mbalit bi mu ne kooku moo ma ko nettali mu ne xanaa yéen anglais yi xam ngeen kooku de mu ne ko man la man mii nga dajal fii man la man maay Abdul Hamid xoola nit ku ñuul nekk anglais trois heures de temps mu jox ko yàlla ci dundam fii ñu toog ci baas bi kan moo jox yàlla ñaari minute boo xam ne yàlla rek moo tax ngay liggéeyal diine ji yàlla rek kan ci ñun fii isan loolu mooy suñu problème Aboubacar Sadiq keroog bu mu tuubee yonent yàlla Muhammad da ko ne indi sa loxo mu indi mu joxe loxoom jaayante bi yonent bi nekk julit après Aboubacar xam ngeen ban laaj la laaj yonent dafa ne yonent diine ji ma dugg tey lan moo ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war Aboubacar daal di génn premier jour mu indi Ousmane Ibn Affan deuxième jour mu indi Ousmane Ibn Maazum troisième jour mu indi Arkam Ibn Abil Arkam quatrième jour mu indi Bilal noonu la toppee ba jàng ngeen ci alxuraan ci islam ñu ne leen asara mubashirina bil janna sept personnes ñaata lañ du fukk lañ al mubashirina bil janna du fukk lañ juróom ñaar ñi Aboubacar moo leen daawa sept personnes yi ci asara mubashirina bil janna ñun ñu toog fii ci baax bi kan ci ñun moo dugal benn nit ci l'islam kan xanaa cheikh bi ma wax léegi tuubal naa ñetti nit sama kër à part de moom keneen kan ci ñun fi moo dugal benn nit ci l'islam kan nay ko ci loxo kan ci ñun moo fexe ba ku dul woon julli di julli kan ci ñun moo fexe benn waaye boo xam ne daawul woor di woor kan ci ñun moo fexe ba benn jigéen bu daal son lu bon di sàng yaramam kan boo waxee kan moo entraîné boy bi ba mën bëréw léegi gars yi yëkkati loxo aco kan moo entraîné koñ bi ba ñu mën a way ku fi organiser simb bis bu nekk bayal bi dinañ ko organiser simb dinañ ko organiser kan moo koy organiser léegi gars yi yëkkati seen loxo yal nañ yàlla jubal yal nañ yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon dëgg mbokk yi mu wërsëgal ñu topp beneen bi mooy al awlama mooy mondialisation mondialisation mondialisation lan la ci jullit di def ndax jullit dañuy toog rek seen kër yi naan mondialisation bi baaxul mondialisation ku nekk am na ñoo xam ne boo nee jëndal télé sax ñu ne non mondialisation bi tax du ma jënd télé non du loolu du loolu mbokk yi loo gis rek am na côté positif am na côté négatif jullit nag chaque jour mooy koo xam ne li baax rek lay jël li baax ndax yàlla lu baax la am yàlla amul lu bon lan moo lay won ne yàlla amul lu bon mooy boo defee benn tiyaaba ñaata tiyaaba ngay am ah wal hasanatu bi ashari man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha wa man jaa bi sayya fala yujza illa mislaha fala yujza illa mislaha yàlla boo defee xoolal ci weeru koor gi ñu nekk boo defee benn takkusaan la lan lañ julli léegi léegi tisbaar ñu julli tisbaar yëpp yàlla soixante dix tisbaar la leen di fay soixante dix ñi nga xam ne biñ demee ci jàkka ji avant ñuy julli tisbaar bi ñaari ràkk lañ def ñooñu seen ràkk yooyu farata la naafila boobu farata la leen ko yàlla di fay ci weeru koor yàlla day double tiyaaba bi naafila bi farata lay nekk farata bi yàlla di la ko fay soixante dix fois soo jàppee noonu ba weer wi jox ñaata tiyaaba nga yor naka noonu lu baax chaque jour boo ko gisee da ngay profité maanaam loolu loolu gars yi naan promotion waa Tigo dañuy jekk-jekk def promotion ah ak waa Orange ak waa Expresso ak waa Kirène dañu koy jekk-jekki def ko yàlla loolu la def ci weeru koor gi mooy promotion boo jullee benn julli au lieu nga am dix soixante dix ngay am soo wooree au lieu nga am dix soixante dix ngay am boo saraxee au lieu nga am dix soixante dix ngay am bu doon crédit la di ngeen jënd wala du ngeen jënd téeméer ñaar téeméer juróomi téeméer cinq mille est-ce que dañuy jënd wala duñ jënd lu tax nag yàlla indi ñu promotion tiyaaba ñun ñu bañ a ne duñ ko la xam nga loolu wax ne gars yi duñ ko jël bàyyil ba naafila bi jot da ngay gis ku taxaw këram daan ne boo tourné nii jàkka ji ñàkk nga ràkk la ñuy julli ñu ne noor yi ñooñu vingt ñu ne jumaa ji la kaat nga de ku ne wu ku bañ sa tension monte fa ngay dem jàkka ràppi ku bañ sa tension monte fa ngay dem al awlama bu fekkee dafa ñëw ak ay négatif am nay positif bu fekkee dafa ñëw ak yoo xam ne yu bon la mais am na yu baax ba pare te sax ñun buñ ko jëloon ñun ñoo ko moom parce que islam diine lan la aalam la islam diine adduna bi yépp la wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas qul inni rasulullahi ilaykum jamia mbokk yi jullit lu baax moom moo ko moom alhikma dallatul mumin saa yoo fekkee lu baax jëlal leneen lu bon loo gis nag taxañal teg lu bon yow amoo droit gëstu ko lu baax rek lañ la wax nga gëstu lu baax bu fekkoon ne ñun ñëpp noonu la ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam dafa dëkkoon ak benn waay boo xam ne saa yu xëyee rek def lu bon këram kër yonent bi saa yu xëyee rek daal di buub mbalin mi dugal kër yonent bi bu gaa yi buggee soxna yi buggee wax sa gaa yi bëgg a wax rek yonent bi ne an leen tuuri mbaa ma an tuuri an leen tuuri mbaa ma an tuuri ku wax ku wax ak ku wax ak ndaw si bokkoo ak man ku wax ak ndaw si bokkoo ak man santuma la ko xoole ba bis rek ndaw si feebar yonent bi xëy gis sotti wu ñu mbalit rek mu ne waaw ana ki doon sotti mbalit ñu ne daa feebar yonent bi dem seeti ko kan ci ñun bi mooy def loolu moom kay da ngay takku daan ne kii la ilaha illallah day dox doxlu tey ma won ko ne maa ko ëppi rab bu moom buy dox doxlu nga dox doxlu hôpital bi day day day day bloqué yoon bi day am embouteillage moom day dox doxlu yow da nga war a nite yonent bi nee na laa takun imma bul nekk al toppe nga nekk ak ay nit ñuy def lu baax defal suñuy def lu bon arrêté Sénégal nag da ngay dégg ñu ne foo dem nekk fekk ñëpp simmeeku simmeekul boo simmeekul ñu ne la ku la ne nga simmeeku looy wax mbokk yi problème yi ñu doon wax ak yeneen yu mel ni moom wala défi yooyu ñu doon wax ak yeneen yu mel ni moom lu ñu tëj waxtaan wi lu dul نود أن نؤكد مرة أخرى أن هذه التحديات ليست في الحقيقة lii ñu doon wax ni ci défi yi nekkul dëgg-dëgg loo xam ne lu lancé défi islam la ka diin nekkul ne défi yooyu wala problème yooyu dañoo ñëw song l'islam nag ko daaneel non non problème yooyu songul l'islam de ñun ñii la songu ñun ñii la taxaw suñu kanam lu tax parce que l'islam moom diine la joo xam ne yàllaa ko pare lépp lu ñëw ci kaw suuf l'islam mun na ko gérer mun na dund ak moom programmer na ko sóoraale na ko ba bu fekkee am na génn waaye l'islam def ci génn amul luy ñëw ci kaw suuf ba l'islam du ci génn démb benn waay ci suñu tafsir benn waay dama laaj benn laaj ma ni est-ce que am na lu islam waxul rek benn waay ne ma attention attention question bi benn waay dañu doon tafsiral wala dañu doon defal conférence mu daal di koy laaj rek benn waay bu sadik jóg ci mbooloo mi ne saaku mburu bi ñaata ñaata kilo lay def rek kii tafsir ne ko xaaral ma ñëw daal dem ci pour bi daal di laaj boulanger bi saaku fëriñ bi ñaata mburu lañ ciy def mu ne ko saak bi mun naa muul vingt mën nañ cee def vingt kilos mu ñëw ne ana ki laaj laaj mu ne maa ngi nii mu ne ko vingt kilos lay def waaye wax nga dëgg mu ne ko xam nga lu taxoon tontu ma la yàlla ne ne fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun comme li nga ma laaj aw ma ci zikri ma dem laaj ci am zikri bi fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun islam lépp la programme islam lépp la programme Ibou Sakho da doon conférence mu jekki-jekki naa ne mbooloo mi ku fi ñëw xam naa lu la indi benn waaye bu kan na su jóg ci mbooloo mi ne ko lu ma fi indi mu ne ko fenloo ma lépp lañ programme diine ji lépp la am programme lépp loo indi rek diine ji am na maxraj waaye dëkk yooyu ak problème yi suñu kaw la tegu ñun ñii ñoo war a ut ay solution yu ci génne te l'islam indi lañu solution bi dara daju rek lu dul ñu daal di koy jël rek daal di daal di koy fajoo mu daal di dem mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala du ma tëj waxtaan wi lu dul yóbbante biñ ma yóbbante woon waa daara ji yóbbante ma ko dama leen koy wax dañu yor sunu daara alxuraan waa kay yaa ngi yor carte bi daara ji dal bi daa daanu te xale yi noonu ñoo jàng déwén daara ji waaw daara ji alxuraan ji dal bi moo daanu dal bi taw bi moo ko taw daal koy daaneel léegi nag gars yi ne nañ ñaan suñ def conférence nañ ñaan mbokk yi ndimbal gars yi def ay carte carte barkeelu dañ leen di ñaan ngir yàlla kenn ku nekk ci yéen suñ la joxee carte bi soo amee liñ bind ci carte bi nga dimbaliñ ci ndax xale yooyu mën a jàng seen diine boo ko amul li nga am nga tollool boo amee du ko ëpp lit nga dimbaliñ ci daara jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu loolu laay tëjee waxtaan bi
dégg nañ ni ustaas wax ci conférence seen biñ ko joxoon yaakaar naa ni wax na ci loo xam ne war nañ ko si mën a jàpp te tamit xëy na buñ ko dee wax tamit mooy suñ dee def genre tel bi pour buñ ci amee ay solution pour solution yi am nañ luñ si difficulté yi mais ñoo xam ne solution dana ci def ba génn ci suñ si jógee ñu doon see dox suñu tànk léegi en résumé rek li ñu si stage bi wax bari na trop mais dañ ci jaar si tuuti rek mooy islam bi ak problème bi am fii en face exemple de difficulté du monde moderne léegi ci loolu islam bàyyiwul dara peut-être ñun ñoo ko jàng ñu xam ko moo tax ci loolu doomu aadama dafa war a jàng jàng bi mooy lan mooy loolu si xalaat si loolu dina si xalaat xalaat si saa ñu xalaat yàlla ci boppam moo ne doomu aadama na jàng yàlla jàngal na doomu aadama ci kanam lan moo njëkk si doomu aadama mooy na xam yàlla ba pare soo xamee yàlla